bismillahi rahman rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média ñoo ngeen nuyu bu baax a baax kilifa biir kër gi yëpp jiital ci sunu PDG ak képp ku fi liggéey yal na yàlla defal leen jàmm sénégalais yi nga xam ne itam ñoo nekk à l'extérieur ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah nuyu itam kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gudul jeex ñu ngi ziyaara itam ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi gannaaw buñ leen ñaanalee yàlla ñu yàgg fi lool ànd ak wér waaye itam noonu lañ leen di noonu lanoo sàkkoo ñaan ci ñoom ndax yëg nañu suñu xel ak suñu xol nu nu jubóog suñu borom kon bokk lépp loo xam ne rek ñu ngi koy ñaan yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp maanaam bu ma waxee ñun ñëpp askan wi yëpp amul xaaj amul seen ndax xam ngeen ne dëkk bi dañu ko bokk ak sunu mbokki chrétiens yi macha allah yal na yàlla li fi jàmm noonu la ñuy ñaanale itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci cliniques yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñaanal leen yàlla ñu wér ñi nga xam ne itam ñoo leen faj ñoo leen di faj yàlla nañu wér bu baax a baax kenn bañ a feebar macha allah donte jamono metti na lool feebar wër àdduna bi yëpp waaye ñaanu mën na lu ne waaye itam barrières lu bare bare dina saafarawu ci li nga xam ne mooy Covid 19. ñu ngi seet itam gor ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi nattu moo dal seen kaw ñuy ñaan yàlla natt boobu yal nay càngaay ci ñoom te yàlla gaaw féexal leen génne leen ca bërëb yooyu ndax bërëb yooyu dafa yombul dara waaye gannaaw nag lu yàlla nam war na lu mu àggale daa jot yàlla na àgge ci ñoom ñu juge fa te bu buñ fa jugee itam yàlla buñ fa delluwaat Adja Linguère ñu ngi fàttaliku itam ba tey sunu wayjur yu baax yi ñu doon mm-hmm. àndal sunuy wasila yàlla yàlla taas ñu barke. amiin amiin yàlla yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a allah. maa ngi lay wax bisimilah di kontaan lool lool lool. wallaay ca kanam tuuti dana am koo xam ne sama benn soppe boo xam ne dama koy wax joyeux anniversaire. Mhm. muy ajaratu Fatou Bensouda. ndeysaan moom ma nga fële ca CPI sunu xarit bu mag boobu. moom macha allah dañ ko bëgg macha allah kon boog soxna benn Bensouda happy birthday. wallaay démb la woon anniversaire am waaye dañu koy wéyal ba tey. ak soxna Khady Diop ca Ndar. wallaay dama ciy boole Ndeye Kuna Caat Ndeye Kuna Ndiaye. Ndeye Kuna waaw Caatu ñoom Ana Ndiaye. ajaratu ndey seena bu nduur décidément février daal man samay soppee rek ci judd da man damaa jàpp ne la le 4 février mooy anniversaire u Eva Tra le 7 di anniversaire u Thiat sa soppe ba ci tëral ko kon boog ndey seena bu nduur yow itam dañuy taxaw wax dëgg yàlla nduur di la ñaanal gudd fan bu ànd ak wér sutur ak teranga daay na la yàlla defal man sama njëkkee laa ko tudde waaw njëkkee laa koy wooyee ah. xaritu Adama Awa man moom sama la Lionne de la Médina gën naa neex xam nga man xam nga man tata Degen moo ma yakkaloon Adama ak Awa waaw ñu yakkal ma ndey Seyna Bundour macha allah ñu nekk samay yaay ñoom ñett wax dëgg yàlla mu nekk ja jigéen ñu jàmbaare dëgg la ñu gis moom itam ni mu taxawoo jigéen ñi foo ko fekk rek man dama naan ndey na boo ko séenee muy dem bu ko laaj lu muy dox nee ko lu jigéen ñi bëggati rek yëg nañu lépp ca Médina wallaay ndeysaan jàppal ma jàpp wallaay ndeysaan wallaay macha allah am jom lool am jom lool macha allah te noonu la xol bi oyofee noonu la bëggee lu baax noonu la mënee wax lu rafet kon dañuy ñëw door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari yi di ñaanal sunu maam sunu soppe ba maam Cheikh Tidiane Al yàlla yokku leeram ci barkeem sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi Baye Abdoulaye Thiaw laay a ne réew mi rek a leen fa bàyyi mm. waaye noonu la ñuy yaay dëggéen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek toftal ci képp koo xamante ne nii jamono ji yaa ngi am mbokk mu tëdd nga xëy na jamono ji fi mu toll tax na mënoo gisanteeg moom mm-hmm. wala mënoo dem fa mu nekk diis diisu xol boobu ak ñoom ñi di wéetaay wa ñu nekkee ñi ngi ñaan yàlla ñu gaaw fa jóge ba delluwaat ci njaboot gi mm-hmm. ndaxte feebar moom jombul kenn waaye ku mu dal ku nekk rek yàlla na yàlla daal sa bopp guddal sa fanta wéral say ci am ku wàññeeku itam ñi ngi leen di masaw bu baax a baax a baax di wax ndeyku na caat ne ko joyeux anniversaire dundal dundal dundal ba énervé caatu yaasi nag ma ak euh, Ana Ndiaye mu baax moomu ak ñoom na bu Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di waxaat ndoy baan sama góor ne ko man daal jàppoon naa ne enquête rek nga mën waaye ndeke Eva sa góor tànk bi oyof na day dem ba miir ah loolu fana a ah, yëgoo xew déedéet ah samedi Ndoye Bane dafa organisé woon soirée dansante li xew sax la def ci mim réew ci mim réew soirée bu toj ci mim réew tam yaa yëg na ko de bàyyi ko ci biir ci mim réew am na lu ci xew lu ma xamul waaye soirée moom mënta ne ala kulli parce que fu jamono toll la tëgg na soirée samdi de fecc na fa lu dara jarut moom moo Gueye mi nga xam ne moom dafa ñëw baal ma di mu paan fi ah oui ah, man sama réalisatrice lii tax ma bëgg ko de su ma naree taxaw daf ma naan avancé daal di may du euh, dee yëf yi rek man naan yaa def lii ci télé bi yow <laughs> du yow la ñuy waxal. Hmm. en quantiment li bambare naan wax waxuñu ak yow. Hmm. <laughs> ay ca bismilla Ndoye Bane ñu ngi lay nuyu. ñu ngi jaar kilifa ah, diine kilifa aada yi nag da ngay waaf su may nuyu sëñ Bass Abdou Khadre da ngeen di déglu. ah bañ a déglu waaw ah, xanaa xanaa. bu ngeen ma nuyu Pathé Dia sax xam nga lu ma neex ci fi ñu njaga teg. Ah. bu Bouba Ndour dee dugg daa ko gis oustaz Modou Fall bu rombee nga gis ko Pathé Dia bu rombee nga gis ko. man ba Covid di jeex nañ ma bàyyi fii rek parce que franchement dafa baax. neex naa nooyee fii daal man fii neex na ma fii neex na ma. kan ngeen di noppi ma nuyu Cheikh Bassirou Abdou Khadre mu baax. xanaa nii nga ko waxee nii lañ ko defee te wér waaw ñu koy ñaan mu yàgg fi yàgg fi lool te wér waaw ñu koy ñaan mu yàgg fi lool te wér moom Cheikh Bassirou Abdou Khadre moomee di jaar waa Pire sañu xor gi yëpp sunu xalif ba Serigne Mansour Cissé ak euh, Serigne Maodo Cissé ak mu sëñ Moustapha Ka ñu ngi koy jaar mm. baax ak moom parent ji bi Diagne mm. sunu kilifa yooyu di leen ñaanu yàgg fi lool te weer Serigne mm-hmm. boobu ñu ngi koy jaar bu wér Euh, di leen wax rek yàlla na yàlla musal ci mbas mi. amiin yaa bépp bu doomu aadama boo xam ne dafa ne ci réew mi wala bitim réew. amiin bépp sénégalais bu ne ci Sénégal ak euh, bu ne bitim réew ñëpp daal. Mm. yàlla na yàlla musal ci mbas mi ba ñëpp mën a am jàmm. soxna soxna amiin sànq maa ngi naan du ma yëg xet nga ni ma ma mooy tudde waaw ah. ma waaye du ma yëg xet daal mi yaa xaw ma lu ci sa xalaat. kon de ngi waaj a corona. ah yaa ngi koy waaj a corona. waaw yal na nu wér yal na nu wér ñun ñëpp. macha allah man daal yëguma xet wax naa ko <laughs> ci ragal rek. Mongo 88 628 22 22 88 628 04 05 ngeen mën a bokk ci waxtaan wii ñu ngi waxtaanee nag ñi nga xam ne ñoo impacté ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi nga xam ne dafa dafa wër jamono bi yëpp macha allah impacté yi li tax ñu tànn leen rek pour ñoom itam ñu mën a wax seen xalaat pour que ku ci nekk rek xam ne mbir mi metti na buñ dee wax. ba tey ci waxu eh, impacté wu Covid yi xam ngeen ne dinañ dem sax ba ci wàllu location dinañ dem ba ca ñi nga xam ne dañuy liggéey te gisatuñu kenn pour que seen liggéey dox kon nag bu ñu waxee loolu faaw yërmande dafay daal di taxaw bu nu waxee yërmande dañuy fàttali rek ndax am na ñoo xam ne dañoo foog ne ba tey jamono dafa nekkoon fa mu ne woon te jamono jóge na foofu ñuy ñaan yàlla mu jox ñu la woon bu ko defee ñu defee nanu daan defee nañu yërmante tuuti bu ñu yërmantee rek incha allah yëf dana dana passé te jàmm rek ci am li tax ñu wax ko itam wax nañ ko fii euh, defe naa 1er janvier bañ dee waxtaan. ñu bëri ñu ngee bëgg génne seen ay seen ay locataires. wax dëgg yàlla yooyu nañ ci bàyyi xel. Mm-hmm. ña nga xam ne itam dañu jëloon ay engagement mënatuñu euh, honorer engagement yi. parce que mm-hmm. jamono naqadina. Mm-hmm. Euh, ma ma ma dikk rek ci Mami Linguère. pareegu ma léegi am na ku naan ay waay yal na ngeen gudd fan man mii rek maa impacté. Ah, voilà. xam nga ku jàpp ne yow rek la sax fi mu nii ku njëkk a yuuxu rek da ngaa ragal mm-hmm. la sëriñ Moussa Ka waxoon sëriñ Bamba ci xarnu bi rek boo nu joxoon la nu yoroon dootu nu defaat la nu defoon ma Mbàkke xanaa yëgoon ne yaru na ma eh waay ndeysaan ñu ci xarnu boobu la nu toll ndeysaan dolli ma boo nu joxoon la nu yoroon dootu nu defaat la nu defoon mbàkke xanaa yeboo ne yaru nanu ndeysaan xam nga xarnu boobu la nu tolluwaat ndaxte jamono dafay dox ba tolloog jamono joo xamante ne c'est bu dikkee rek dafay metti dafay am nu muy dalee ci kaw askan wi dafi mu toll nii koo seen muy dem ku sa yàppum bopp rek Eva mhm. lambal sam kaang luy bax la amul ruq bu sedd wallaay ki wax ak ki noppee fi nekk mhm. ki dem ba mën a tuta muñ mu génnee li nekk ci moom mhm. ak ki nga xamante ne mi ngi continuer rek di dund boof ci ngoram dëgg mais foo lamb fu nekk foofu metti na boo fëggoon tey waykat yi. waaw ñu ne la ñoom dee nañ bu yàgg. dëgg la daañu leen fi euh, woo sax ndeysaan Ousseyn Mbaye Ousseyn Mbaye nee na ko xaw ma naan allo mu ne ko waa mu ne ko damaa dégg ñu ne couvre feu bi daa commencé mu ne ko waa mu ne ko Covid mi daal day bañ géwél <laughs> waaye kon Covid mii ki muy bañ na ku baax ku riis waaw bañ nañu am. kon Covid mii ndeke ñi muy bañ bari na. wallaay boo demee ci biir kër yi. am na ci gor ñoo xamante ne nii Eva man gis nga wayu abinduur boobu mm. euh, jàmm abinduur bi niñ ko fi defee woon di ko def générique gu yenn yi neex na ma trop mais gis nga bi mu naan gor rek a sonn gor rek a jaaxle du yalwaan te rus naa ñaan ngir dimbali boppam ak kay dëgg am na gor ñoo xamante ne actuellement ñoom mm. waxuma virusu covid ñoom dawuñu loolu mii xiif bi seen njaboot nekkee mm-hmm. coono bi seen njaboot nekkee kañ laay fanaani biti gi seen njaboot gi nekkee ñoom nekk seen problème te actuellement ñi ñu war a expulsé ci dëkk bi du ñu jeex parce que tamit comprendre nañ ñu yore seeni kër ndax ci loolu la ñuy dund mais ki nga xamante ne moo la daan fay di la fay te musula ameel benn yoon mhm. su jamono bu mel nii dikkee nga gis ne liggéeyeetul mi ngi taaba taaba heure ba mu daan wàcc dikk ci kër gi dikkatu ko mhm. ndax benn gor suy taxaw ci kaw suuf bëggul ku jàkkaarloog yow ne la fay ma sama bor sama rawatina nag boru luwaas ma mi nañ ko wax de kenn dafa metti boru luwaas et puis dafa ruslu dina tay di ko amee gis nga Eva ah. pour man kuy jël kër léeg-léeg nga wax ñu ne ku def man mais pour man ku dem bay engagé kër c'est parce que daf la wóor que ne lii mën nga ko fay xel bu dal ndaxte bagage ak ni mu diisee tuxoog ni mu méttee pour man kenn roñul sa bagage mhm. di dugg ci foo xam ne da nga naan naa dugg tey dëkk fi ñetti weer bu subaa ñu génne waat ma roñaat du lof lay sax na tuxu ci ñaari at at nga tuxu ci ñaari yoon ak ku lakkale ba jeex la tàkk yéen a yem ndax boo paree dawtoo baax lee ci dara boo fëggoon assureur yi loolu lañ lay wax mais problème ndoy daan def ci enquête ci kër yi nga xam ne ñi ngi tas mm. parce que am na ci jabar yoo xam ne toogatuñu ña ngay takk seen i di dem donte fa ñu jëm xamuñu lañ fay fekk mm. ndax mbalaxum yuur la boromum xel a koy fecc am na ci ñoo xam ne seen i doom jàngeetuñu c'est pas parce dañoo gisul école bu ñu jàngee jee mais fay ñu weer yi am na ci ñoo xamante ne ñoom ci seen bopp fayatuñu borom boutique ba leen doon jox dépense amatuñu dépense ñi ngi daw di taqale ñi ngi def leneen ak leneen mbir mi daal cin luy baax la am ruq bu sedd fépp metti mhm. sa xarit ak ak neex xaritu bili ba boobu mm. kor imam Diagne nee na mm. ay waay sama doom man sax impacté naa sama poulailler bi sax dox naa euh, euh, jot naa dox Amin Ndiaye Amin Ndiaye Diagne xam nga sama yaabooy sama yaayu xol yaabooy mm, ndax ma gisee boobu la may njëkk a may bi ma ne ma ginaar yi ma suppu leen waaw nga la waa ji dafa dafa yar impacté rek waa dafa yar ay ginaar xam nga pareegu ma Adja Kine loo nee na moom cuuraay mi sax jaratul ah, Adja Kine impacté ndax kër yi moom buñ ci eh, boolee eh, fatu yaayu papito jàkk lu muy wax ni non dama ne buñ ci boolee wax ku ko bàyyi rek mu naan cuuraay mi jaratu eh, buñ ci boolee fatu ci biir kër yi di xeeñ naqari moom dooy baan dana fiy toogee bu leen ko nangu waa ne da koy jaay ci gàmmu gi dag ko téléphone ne ko waaye yow e sa ginaar yi yow comme dañoo aj gàmmu gi noo koy def da koy lekk wala noo koy def mu ne ko non dama leen di yóbbu ñu fee yi <laughs> ay mami dimbali macha allah dooy baan <coughs> waaw. yow nag inspecteur fii lañ la soxlaa sa liggéey. impacté yi bëgg naa nga wëral ñu leen. <laughs> ñu gis leen teg leen bët yëg Covid bi. Mm. à quel point ci ban niveau rek la def la la def dégâts ci réew mi. impacté yi kay jarul wër foo tourné dajeeg ñoom. wallaay <laughs> lu leen di wëree. jarul wër ñëpp impacté <laughs> di. di ko commencé ci ci ci nguur ga. ca président état bi. moom moom kilifa diine yi non non impacté lii nii état. Ah. Ah. arrangé wul kilifa diine yi arrangé wul kenn léppay taxaw mhm. ngay xool tey ji sànq moom maa ngi wax sama xel ni yar na siiru maan bi siiru guddi waaw am koo xam ne amul taxi amul taxi titulaire yi suñu xëyee fajar liggéey ba 18 heures ci leen lay jox taxi bi nga fanaan waaw kook kooku dootul liggéey parce que taxi yi dootul ñu daw guddi c'est vrai c'est la même chose que artistes yi nga xam dañ daan tourner guddi gi dem répétition ak di dem ci ci yenn yenn boîte de nuit di tëgg ñoom dootu ñu liggéey ñu yore restaurant yi dootu ñu liggéey am na ñu ci bari dàq nañ leen am na ñoo xam dañ leen a wàññi leen toog leen seen kër ba affaire yi wàññeeku. Pape Cissé daal laa gis impacté toog ku la romb gis ka. xam nga Pape Cissé impacté wul. déedéet mm, xam nga ah, ah. Mm, mbëri mbëri dinañ ko audité. ma mbëri non serveur vocal moom impacté dégg nga foofu dong la affaire kii yee dégg nga waaw euh, loolu mbëri soo demee ci mbëri soo mm-hmm. demee ci marché yi mm-hmm. marché yi dañ daan liggéey ba guddi mais léegi dañuy teel a waat mm-hmm. euh, chauffeur yi ngay gis tamit daw ba 18 heures course du fu la 18 heures fekk dootoo mën a jël beneen waya euh, beneen course pour dem fenn borom station yi jaay c'est ça maanaam mbir mi fépp la kenn ku ci nekk su doon nit ku dee la mën nga koo jaal sa morom. dëgg la maanaam maanaam si gindigaale te lañ bokk. mooy mooy mooy mooy impacté. parce que kenn ku ci nekk am na lu la feebar bi yàqal soo feebarul it am na lu mu la yàqal. Uh-huh. donc loolu ci boppam arrangé wul c'est c'est mais nag c'est mondial naka la ñuy def pour que pour jógaat su affaire bi jógee loolu état yi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo koy seet naka la ñuy def chef d'entreprise tamit naka la ñuy def parce que tamit il faut féliciter le groupe Futurs Médias parce que wax dëgg yàlla metti na trop feebar bi ñiy toog seen i kër nga leen di fay liggéeyuñu xam nga. Euh, soo de te yëf fi doxul. te yëfi doxul soo leen dee 500 personnes 200 yi ñoom ñooy liggéey ñi ci des toog seen kër ñu leen di fay loolu am na ay entreprises yu bare bari yoo xam ni. noonu la ñuy doxale mais am na ci ñoo xam dañoo wàññi seen personnel surtout hôtel yi. Mhm. xam nga ñooñu tamit leen seeti jëm leen indi fii ñu toog. dëgg jéem a ministère de l' emploi et du travail aussi. Mhm. ñu ñëw xool naka la ñuy. Euh, lan lañ programme pour soxna Tutaan ñu ngi koy nuyu di mhm. nuyu Dage Ami Mbacké. sunu rakk sunu xarit. macha allah. xam nga yooyu tam dafa dafa deewaar naka Moodu fraude la même chose foofu tamit dafa metti trop trop trop tey ji koo xam ne yow euh, euh, la la daan dundal bitim réew lay jógee mm-hmm. moodu moodu ñu ci bari liggéey dañ leen dañ leen horaire dañ ko wàññi confinement vingt quatre heures sur vingt quatre wala wala douze heures de temps la ngeen am droit circuler nu tëj ko ku ci am doomu moodu moodu wala képp koo xam da nga am jam jëkkëru moodu moodu wala moodu moodu moo la doon dundal soo jotul dara na nga comprendre xam ne ñoom génnatuñu ñu ci bari génnatuñu pour liggéey donc te loolu moodu moodu lan daan dugal ci dëkk bi su dugatul dëkk bi da koy yëg <laughs> parce que soo demee dëkk ka dëkk bu mel ni Louga dëkk bu mel ni Touba Diourbel wàcc ay Bambey ak yooyu ay moodu moodu kese na tey jii économie dëkk ba la ko daan doxal moodu moodu yoo ko daan doxal suñu daan yónnee cinquante millions par exemple exemple par mois léegi moom mu dix millions mënatul dugg ca dëkk ba loolu loolu day indi problème mm-hmm. loolu nag su tëjoo boutique yi du dox dara du dox lebum ceeb lépp dëwlin mm. lépp lu ne ma fàttali la jamonoy jamonoy dikkati. waaw ci kaw gi xaalis boobu nga xamante ne moom la Modou Modou yi daan yónnee. borom boutique bi muy wàcc pour muy joxe dépense këram da ko doon teg ci boutique bi su ñëwee mu dem jëndi marchandise mhm. ñëw rechargé waat boutique mm. di joxe dépense nag ci li muy jaay donc moom su loolu ñëwatul moom aussi impacté na mhm. jéeg bi ci biir kër gi daan defar ay sërëm ak yeneen di ko jaay impacté na mhm. mbir mi daal Eva li ma la wax biig ci guddi rek ba nga may reetaan démb na dégg naa la waaw xaar tey ba émission bi di jeex yaa ak Néa Ndour ma tontu leen waaye ko wax ca kaw ndax biig mere naa <laughs> mais xam nga dañuy da ngay dem ba da nga naan wallaay est gerte caaf bi sax impacté wul ah oui parce que bu saasee gerteem kan la koy jaay dëgg la dafa am ñeneen ñoo xam ne barki dem dama toog sama kër ba yàgg sama xel nekk ñoom képp si caam moom xam naa impacté na ndax dematul Amérique ndeysaan mm, mm. moom fii rek lay mais mais mais ci virtuel bi la koy jàpp rek xam nga lii moo tax ñu ne faaw ñu defaraat suñu toogaay parce que Euh, lu jëm ci wàllu euh, nuñ koy waxatee euh, ni ñuy informatiser système. Mhm. dafa mujj arranger ñëpp. Mhm. ba nga xam ne léegi réunion yu mag yi billet d'avion yi ñu doon jënd ak yooyu yëpp. Mhm. da ngay dem zoom rek daal di tàmbali sa waxtaan. le monde a changé man jamono mooy egg foo xam ne Eva da nga koy gàttandu. c'est vrai boo seetloo ca début Covid ba dama leen ne woon dafa mel ne Covid bi dafa ñëw pour jàngalaat ñu doomu aadama nan lay mën a dundee. pour gérer yenn yi ci boppam. dëgg la mais nag xam nga mbir itam day dem ba egg foo xamante ne pour nga gérer ko faawu ci début bi dina metti ba kenn ku ci nekk di yuuxu. Mhm. da ngay xool jaaykatu jën yi nga xamante ne yow danga daan ñëw def wareef ba pare. Mhm. génn dox say quelques courses jaar ci ñoom après timis gi ñoom ci la ñuy lal di jaay. dëgg la di jaay ay jën yu baax boo demoon ci yenn euh, barab yi danga leen fay fekk. ñooñu impacté nañ parce que mënatuñ toog foofu pour jaay ko. Mhm. yow mi nga xam ne yaa waroon dem di ko jëndi suba gi nga mënoon xëy pour dem jëndi peut-être doo am jot boobu ngoo guddi gi nga ko daan jënd ci ñoom wala ngoon gi ñooñu kenn ëpp leen problème te loolu ñu doon jaay am na njaboot bu toog ci kër ga di leen xaar pour ñu dem war ko yóbbu war leen ci dundal kon daal am na yu bare baree baree bari yu metti yoo xamante ne nii ndoy baa nag koy tudd sànq ndax di liggéey nekk ci sa teraanga nekk ci benn société di liggéey di fayee ko sa weer bu dee kenn xamalu la dara ngay fay sa kër di dimbali sa jabar di yor sa jabar yor sa njaboot yor sa ñëpp di leen fayal doomi bi ñu juddoo ba léegi dañu mës a gis ne papa jàmbaar la mu yóbbu ma sama xel démb ma toog di xalaat ba ci way ajaratu ki ne laam wayoon mm. mooy boroom kër boroom kër talul lekk ci biir këram talul naan ci biir këram fajar fekk na ko mu jóg naan bul gaaw a sëngeem billaay dafay lang ak a xelu boo yeggee di wetti saw ñaq lu faroon mm. daal nga yëg ko sa njaboot takk fa sa biir di xiif ak a mar lépp ngir sa njaboot mm-hmm. kooku tey xëy baay boobu nga xam ne doom ji daf ko doon xoolee bëtu sama papa mën ci góor ña ñëpp mu xëy tey ñu wàññi ko fa muy liggéeyee li ndooy baan Sénégal nag loo fi wax ci béy bu feebar ñu ne dara ba nga soxla pour aw ci sa téere mais dañuy wax ne jaajëfal nañu TFM bu baax a baax ndaxte xëy na du ñun mais bu ñu gisoon keneen ku ñu fi wàññi wala leneen wala dara wala ku ñu fayul dina metti ci ñun ñëpp ndax ñun famille lañu wax dëgg yàlla comme ni ko ñeneen ñi doonee fa ñuy liggéeyee mais nga xool tey waajur woowu ñu wàññi ko mu ñëw toog mënta dem xari matt fenn mënul dem dóori fenn dafay dellu siwaat ci biir kër gi toog ki ko luyee ñëw taxaw fayee ko borom location am ba daal di ñëw moom itam fayee ko borom la muy jël ca boutique ba keneen ka ñëw fa fayeeku tey ñu xëy gis ñu coupé sa courant te daaw ñu ko woon coupé suba ñu xëy gis ñu coupé sa ndox donc yëf yi metti na parce que waajur boobu day daal di am benn faiblesse bu mu am ci kanamu njabootam bala mu sañoon day jàpp ne dafa manqué mais bu mu ko def gàcce jamono moo fa toll du ci moom mhm. kii nee na moom li ko jaaxal mooy dafa bokkoon tontine bu mag Sénégal mais bi Covid bi ñëwee ba léegi dafa doon wax tontine bi nañ ko arrêté pour ñu xoolaat beneen démarche daal wala mais xam naa ne yëfam moom itam yombul jigéen la Ah, loolu mooy problème tontine bi nañ nañ ci def attention nag de. ndax lan tontine bu mag moom ñu mag dong ci mën a bokk. ñooñu war nañoo mën seen bopp. Mhm. bu ñu am na ñoo xam dañuy wéer dañ yu bari mi ngi xew ñu koy wéer Covid bi du Covid bi. nañ continuer seen tontine yow li ya tax ngóor seen baax ci. Ah, na nga ne am na xam ne ñu bari mi ngi xew ñu koy jiin Covid bi du Covid bi nañ continuer seen tontine boobu. d'accord xam nga. voilà man li ma yox mooy. tontine bi ndoy baan mën na mën na impacté fenn ci ci Covid bi. Mhm. yàgg naa wax fii que ne jeeg gi natt xamuñu li ñuy natt lan la jeeg du yor moromum jeegam mais ki nekk bitim réew daa natt cent mille francs par weer fii ci dëkk bi ñu confiné ko mu toog. liggéeyul jëkkëram liggéeyul. bien si mu amoon fii Ndakaaroo ko su loolu tëj na kooku du mën a ci natt cent mille yooyu par weer. su ko nattul pour ñu teggil keneen il faut que mu manqué cent mille boo ci amee ay ñaar ak ñett ak ñeent day daal cent mille. baax na en tout kuy bokk ci nattu cinq cent mille par weer mm. doo doo ko ndóol mm, sama classe bi nga xam ne mat nattu cinq mille francs par weer lañ bokk yooyu moom ñun ñun ñun ñooy impacté yu mag yi mais man li ma bëgg a wax mooy borom doole yaa ngi ci dëkk bi fii Sénégal ah, ah, France borom doole yaa ngay jàppalante Amérique borom doole yaa ngi mooy daax woo xamul ñu woote ay téléthon ak yooyu mais kenn ku ci nekk quartier ba nga dëkk quartier ba nga dëkk soo mënee jàppale waa quartier ba ndànk par ndànk ci ab dund affaire yooyu nga koy def. très koñ boo dëkk def fa 10 ans xam nga ña fa pauvre. xam nga ña fa mën seen bopp xam nga ña fa mënul seen bopp. nga leen di jàppale mais entreprise yi tamit chef d' entreprise yi. képp koo xam ne mën ngaa jàppale say employé jàppale leen te du la wàññi dara nga def ko. dëgg la c' important képp koo xam ne mën ngaa jàppale say employé te du la wàññi dara na nga ko def. waaye di korkorob xaalis bëgg ay milliards bëgg denc ay ca compte ba ay milliards. te bés ñëw nit ñaa ngi ñaata milliardaire la la la Covid bi yóbbu. Hmm. dëgg la ñaata milliardaire la Covid bi yóbbu ñaata milliards lañ fi bàyyi. kon book mbir mi ne alal moom pour jaamu yàlla la. alal fajul dee gàcce lay faj waaw fin mi nii. Hmm. problème bi bu ko kenn jiin kenn yàlla moo indi musi moom moo indi balaam. Hmm. bàyyi fu kenn te balaa boobu jombul kenn. dëgg la ginnaaw nag ab dajaloo lay lay lay lay bañ. ak rassemblement yu moo tax liggéey yu bari bloqué wu. ah euh, business yu bari bloqué wu ñim borom doole yi kenn ku nekk nga jàppale ka nga xam ne mën nga ko jàppale chef jàppale seen ay employé état bi jàppale population bi état bi jàppale population bi ministère yi jàppale seen seen seen ay secteur kenn ku nekk jàpp fa nga war jàpp parce que kenn ku nekk la nga war a def xam nga ah, yow la nga war a def xam nga ko cabamana gee la nga fa war a def xam nga ko man mii la ma war a def sama kër wala sama koñ xam naa ko kenn ku nekk bul xaar ba nit ñi nekk ci loof nekk ci ay problème nga koy doog a def tey ji nen li ñuy ñaan yàlla mooy fii ak weer wala fii ak ñaari weer mhm. kaa yi wàññeekoo wàññeekoo ba nit ñi dinañ mën a liggéey mhm. mais tey jii am milliardaire bu mën a jël ko ñu lëmm dugal fa ceeb bu bari dugal fa déwlin ju bari dugal fa maanaam ravitaillement bu bari mu xam ne waa koñ bi du namm dara fii ñaari weer defe naa am na ñoo xam ne mën nañ ko mm, su kenn ku nekk ni dafa am ay milliardaires yu siiw ak milliardaires yu siiwul ñi siiw ak ñi siiwul laa wax. nga ne dafa am milliardaires yu siiw. am na ñu milliardaires yoo xam ne dañ leen a xam mais milliardaires yi ñu laqatu tey mu bari milliards te kenn xamu leen dañoo bari torop ci réew mi lool lool lool sax. macha allah ñooñu nañ yëngu. wala ma li lim ci ñenn ñoo xam dañuy làqatu rek am na ci ñoo xam ne xam naa leen waaye dañuy nëbbatu mhm. ñooñu nañ génn jàppale ñi nga xam ne seen seen ay entreprise mhm. des fois nga gis milliardaire bu wàññi ay employé ndax bëgg bëgge koppar rek ndax euh, xam nga làqatutu jëm tëju ci ba pare wàññi ay employé loolu amul njariñ day bañ ku ko catu wala yooyu nan jaru ko wàññi say employé te yow leer na ni lii ngay am lii ñii soo leen jëlee du la wàññi dara soo leen dàqee du la wàññi dara bàyyi leen ñun ñun ñu liggéey te ngeen jàppale leen situation bi du ñoom ñoo la ko teg kenn tegu la ko yooyu tegoo leen ko. xam nga toog leen ngeen waxtaan bu wóor ou bien ça nga nga cof ci seenu salaire as lëf rek daan ni a ah, man day lii de euh, Covid bee tax mais maa ngi ciy cof as lëf ba fii ak fii fii ak ñaari weer ñu xool ba xam. nga xam nga. <coughs> am na yeneen xale. am na ku bind itam moom nee na ci benn glacier la doon liggéey. Mhm. ci la doon fayal yaayam euh, këram et tout ak ni mu expliqué ne nee na dañu xëy rek dem na leen ñu toog et bi biñ leen toog la weer bu dee bi fay ñu leen. mais da cee am ñoo xam dañ cee profité nag. Mhm. am na ay chef d'entreprise yoo xam ni. dañ cee profité pour dàq ay nit. voilà am na ci ñoo xam ne du Covid bee tax. dañ cee mhm. profité wéeraan ne na dañoo jëm fayit dàq dàq ci ay nit wala bu arrêté loo ci ay nit affaire yooyu. loolu am na ci ñoo xam ne et ci Covid bi ngay xamee ni ndekete ñu baree baree bari amuñu ay contrat yu baax ci fa ñuy liggéey. Mhm. am na ñoo xam ne ay stagiaire la ñoo mhm. ay yu kenn xamul ci Covid bi la la la feeñee. parce que tey ji soo fekkee amoo wéeruwaayu dëgg da nga a dàq. dëgg da nga yomb a dàq soo amul leen la le président Youssou doon wax. ba may door aw ma këyit yawar. këyit hmm. yawar soo ko amul su Covid ñëwee da lay dëgg la mais loolu aussi Ndoye Bane chef d' entreprise am nañ ci responsabilité. bu rëy rëy hmm. waaw hmm. parce que ñu ngi exploité sunu xale yi. Mari Mbow yóndee na leen ay kër yu dul jeex waa Facebook tamit. Uh-huh. Libaas Sarr itam yóndee na leen ay kër. wallaay xam nga daf ci am euh, chef d' entreprise yoo xam ne dañuy exploité sunu ndawi réew mi. parce que xale doo ko téye loo. cinq ans deux ans trois ans quatre ans mhm. bu doon sa doom doo ko ko nangul mhm. te yow ci sa bopp yow mi chef d'entreprise bu fekkee ne mos nga jaar ci liggéeyal nit mhm. bu ñu la ko defoon doo a taxawal loo moomal sa bopp am na ñoo xam ne da xam nañu dañoo bàyyi ca biir am na ñoo xam ne dañoo xamul mais nit ki bu ñëwee ci yow di liggéey si waroo ko star am na xam ne xam nañu dañoo bàyyi ci xam ba ca am na ci ñoo xam ne dañoo xamul nit ki nag bu ñu koy rusee dara day xam la tax ñu di ko rus bala ñoo xaawi suturaam ndaxte mënoo tëye doomu jàmbur di ko exploité ay ati ati at def ko prestataire wala nga jël ko def ko euh, stagiaire mu musa jeex yoon am na ci réew mi ñu nekk te ku fi dofit am nga denn nga ak mbokk mu nite te bu la fëggalee yoon yoon dal ci seen kaw ñu ne daa woor ndax fi la nekkoon démb ak bërki démb mm. fekk waroo sa ay droit ngay laaj mais nag comme dañuy waxtaan ci ci impacté yi mm. dañuy ñëw ci kenn nit ku am solo koo xamante ne dafa def lu rëy te réew mi ñu nekk ku def lu rëy dégg lu rëy président Abdou Diouf ko waxoon te ñun nag li Ndoye Bane di ginaaru kenn nenuñu mais ku ñu gis nga def lu say nawle deful ñu waxal la luñ waxalul say nawle mm-hmm. xamuma ko musuma yendu këram ay produit am lay jaay may jënd ab laay ja seniko mm-hmm. dafa def lu am solo ndaxte jàppanteeg nit ci suuf ngeen demalante ci yoon ba yoon jox la dëgg nga xam ne yow suuf si yaa ko moom mhm. nga wëlbatiku waat bàyyeewaat ko ña ko dëkkee mhm. ak fi jamono tool te boo leen génnee woon yelwaane fu nu fanaan mhm. li may wax bëgg a génn TFM comme tax a taal sa kër bàyyi su guddee nga gàddu sa mbalaan di wëri foo fanaan kenn du la fat kon kooku rafet na ñu taxaw benn minute ne ko jaajëf pour ko bu ëllëgee keneen ku mel ne moom ku ko dégg ku nekk war a xam ne ku yàlla jox këll te du ndes wàttu doy la daf laa séddale loo mbaa du sañ naa fa dugal ku jekku da ngay baale Euh, xam nga doole ji ñuy jaay ci te baale na ba ba mu ba mu naka ba mu teree bi waaw ba wallaay rang muy baale xam nga président Youssou daf ne woon jaay doole baaxul mm. ak ci ku mu mën a doon mm-hmm. ndax yàlla mi la ëpp doole téeméeri junni yoon bu fekkoon ne heure bu la ëppee doole fàdd la nga daanu mm-hmm. benn seconde lay tëyee ngelaw li ngay nooyi dootoo nooyi te ku nooyiwul faatu mm-hmm. te yàlla daf ñoo jox ngelaw li ñu ciy nooyi te ñu ko dara mu jox ñu ay tànk ñu ciy dox te fayuñu ko dara kon yaakaar naa ne su la yàlla tibbalee bàyyi say moroom te fa nga nekkoon doon fa xale am na sa nawle boo fa nekkaloon gënoo ko ndey gënoo ko baay gënoo ko jàng ëppoo ko xam-xam yàlla la neex mu tibb alal jox la te alal jooju ñëw ci yow dina la musa tàggu dem ci ku la yées téeméeri junni yoon te yeggee mu def ca loo ca deful woon mu tanee ci sab nawle na ko dimbali Cheikh Abdoulaye Mbacke sama yaakaar ja ne woon lu gën a diis xolub dajalekatu alal mm. ñu ne xanaa lu gën a diis aw doj ñu ne xanaa xolub dajalekatu alal ndax su ma ko xëyee dégg dimbali ma ju jóge ci xol di dëgg waaye du ca jéem dara Ablaye ja yàlla na sa jàmm yàgg amiin ya rabbal alamin amin amin amin doy baan amin li mu wax euh, am na solo. képp koo xam ne daal. li naan ku jekku del baale loolu tamit am na solo ñëpp rafetlu nañ li nga xam ne moom moom moom la def waaye suñu ñëwaatee ci li nga xam ne moom moo di impacte yi mm-hmm. chauffeur si ñu jaral yërëm lañu mm-hmm. bàjjanu gox Adja Ndeye Fatou moom tam léegi dafa bokk wareef mm-hmm. nee na suñ dee waxtaanee impacté yi nañu ci nañ def focus sax ci couple yi parce que am na couple yu naqadi lool ci jamono yi ñu toll nii nee na man mhm. xam naa njëg yi gàddu seen i bagage di ñibbi mais tëj bi la dëgg la tëj bi la tëj bi dong la parce que tey jii gars yi danga nga daan xëy suba ba ngoon jot. 18h duñ doo ñibbisi. xëy na léegi 18h 19h ñëpp ñibbisi. suba suba dañuy taxaw foofu par pàcc pàccan lan koy def. Ah. ñu taxaw ci couple yi daf ah daf koy jar daf koy jar. doy baal couple bi lan la. waaw non maanaam maanaam am na ñoo xam ne. ba ñu mhm. ba ñu dëkkee dafa tax ñu xuloo. ba ñu dëkkee di gisante tous les jours dafa tax ñu juboo et vice versa. loolu lañ la bëgg a wax. couvre-feu c'est que yéen da ngi xam nga xam nga xam nga nag couvre bi dafa am ñu wul. dafa ñoo xam ne arrangé wu na leen te xam nga yéen xam nga jigéen ja am ñoo xam dañoo fatte te xam nga génn doxantu doxantu bu doxantu bu sew da ko da day da dafay baax waaye toog ci benn kër toog ci benn kër di di dix ba six heures du matin ñu lay nuux ay cuuraay rek di lu nuux ay cuuraay yooyu mën na fàtte fàtte koo xam da ngay énervé ba xëpp ko kii yooyu loolu c'est autre chose yéen yéen yéen yéen jabar yor benn jabar rek impacté la waxtu ma laak waxtu ma nga yor ca ñaar ba ñett nañ ñëw ci leneen <laughs> dégg nga man mën naa comprendre que yi waxal sa bopp yaa yi leen daan indi. maanaam <laughs> maanaam kër yi neexatul kër yi <laughs> neexatul. ndax ndax feebar bi. dëgg la maanaam gaa yi poos yi poosu borom kër yi dafa bënn. xam nga xam nga tey ji des fois nga am salaire. Mhm. salaire da ngay dégg sëriñu mame bi doon wax naan. xam lu. la ngay fayeeku weer bu dee. voilà c'est ça na ci coono gu dul jeex. mooy ndool gi gën a mag ci voilà des fois Sénégal Sénégal souvent euh, li lay li doxal kër yi sax du salaire bi. salaire bi salaire bi xam nga des fois nga. génn génn taf des fois nga génn dajeeg dajeeg. góorgóorlu déedéet dajeeg imaam rek. ngeen nuyu waxtaan mu fa gëlëm ab cinquante mille cinquante millions nga dépensé ci sa juróomi fan wala sa sa sa ñetti fan. mais loolu xaaroo ko. waaw dëgg la ko ñaanoo ko demoo kii da ngaa dajeeg moom rek. mu lew la mu toog ngeen waxtaan rek mu la wër saa yi gëj naa laa gis affaire yooyu xam nga mu xam ne moo la tane te ak kii na mu yëkkati dara jox la ko. Mhm. loolu ñu ci bëree bëri bon di leen di suqali dina fàtt ay turu. turu yooyu nag. Covid bi da koo tëjaale. te ñun Sénégal ay góorgóorlu lañ. voilà c'est ça ñun ñëpp am na ñoo xam ne amuñu salaire liggéeyuñu xëy ñu gont ji suñu xëyee dañuy dem lijjanti ji ko. dëgg la xam nga xaaral ma dem ca buntu télé ba sama fa dajeeg Eva xëy na mu may ma junni. Mhm. junni boobu ngay ngay may wajooju di ko xeeb lool lool mën naa am dépense semaine am la. te muy dëgg. voilà léegi nag ñu ci bari jotatuñu lool kala Eva ma la ko daan jot jox Eva la mu daan xaa la mu daan jot jotatu ko. fii koo fi gis dafa am maanaam chaîne la affaire bi fii nii koo fi gis am na ko muy xaar mhm. sooy xaar Macky Sall Macky am na ko muy xaar mhm. te muy dëgg koo fi gis amul ko muy xaar alal ju fi nit ñor rek nit a ko ko jox yàlla wàccul fii di jox kenn ñaari dërëm wallaay ak a gore kii joxe tey ji da ngay génn da ngay toog xaar nit may la un million nga naan ay kii bari na alal moom i dañ ko koo jox xaw ma da koo liggéey xaw de la ma ne li benn xarit waxoon xaritam ne ko li ma la jox nii dafa dafa dul dara ci li ma am bés bu ne ma at bu ma jël ko exemple. Ah mu ne ko defadul dara ci li ma am. voilà nga ko keneen ku ne demal ci diw mu jàppale la parce que mën nag voilà et ainsi de suite. voilà ñooñu nag yor dara ci comme ni nga ko waxee ñooñu nag. dëgg la man ñooñu lay waxal ñooñu ci boppam mën nañoo jàppale nit ñi. xam nga tey jii ndoy baan mën naa toog mën boppam lool. mais wóor na leen yow wala Eva mën mën boppam mais wóor na leen yow soo jàppalee Eva. di nga jàppale ay nit yu bare baree bari loolu ngay jox Eva Eva du ko dugal ci biir këram. dëgg ay nit néew di doole la koy jox gannaaw yow mënoo wàcc dimbali ji néew di doole ji. Mm-hmm. te Eva mën na wàcc dimbali di new di doole yi nga xam ne dañoo impacté nga teg ko ci loxo Eva Eva jox leen ko. Mm-hmm. te loolu c'est très important. parce que bu yow peut-être da ngay làqatu peut-être amoo jot bi wala peut-être xamoo noo koy def. Mm-hmm. la ma la ma la ma sama la sama xarit ba defoon rek. am benn xaritu assureur maa ngi la koy wax. Mhm. mu ni mu ni maa ngi la koy wax ba keroog mu ni ja benn femme moo ñëw ni ko damaa bëgg nga ñëw xaritoog sama jëkkër. waaw. ndax yow damaa gis ne da baax di def lu baax te damaa bëgg sa te sama jëkkër du def lu baax. <laughs> sama pap sama jëkkër maanaam alalam alalam waaw mun sama jëkkër maanaam alalam daal du ci def lu baax dama bëgg ngeen xaritoo pour muy def lu baax waa ji ni ko nga ne munu ko waaw mu indi jëkkër ji présenté leen ñoom ñaar ñuy ànd mais sa waay fi mu nii waajaa ko waajaa gën a baax ki xarit kee. kon il avait un bon fond dafa gisul woon ku ko ne nii rek. non non c'est sax xamul ku ko gësam. bitim réew a jàngee yàgg fa lool nekk fa torop bari alal lool mi ngi fii ci dëkk bi. Mhm. mais femme bi moo dem seeti kii ma lay wax. benn waay gu sant Jaw mu seeti ko ni dëgg la damaa bëgg nga ñëw xaritoog sama jëkkër mm. ndax ndax sama jëkkër di def lu baax comme yow ni ngay defee lu baax macha allah loolu kay ma man ma ma ndeysaan macha eh, allah papa Djibi Diagne papa Djibi mu ngi leen di nuyu waat ñu ngi koy fay ñu ngi koy fay dëkk ba déggante naa ak moom ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax mu ne ma xam nga lu tax seen émission yi di am solo waaw ma ne ko waa mu ne ma toog waxtaanee kuy dund kuy def lu baax dëgg la day tax kiy dund te waroon a def lu baax bu ko déggee daan ne kon naa jóg roy kii ndax kii maa ngi ko gis mu ngi dund di def lu baax te boobu ba nëga ni wàññeegu ko dara kon man itam naa jóg def lu baax du ma wàññi mais daf may yokk dëgg la mu ne kon loolu ñu di ko waxtaanee xanaa xamoo ne ku baax të demal wuti ku baax ànd ak moom ku bon të demal wuti ku bon nga ànd ak moom te muy dëgg nit ki day yëbb ci kaw ki muy àndal mm. koy àndal bu yàggee mu yëbb ci sa kaw nit ku nekk looloo tax ngay war di dem di ànd ak ki nga xamante ne ni da nga naw imaanam mm-hmm. wala da nga naw baaxam ci mën a def àdduna ñaara ci gën a jafe baan wax ak koo dimbali koo xamul ci te gor dëggantaan a koy def wax ak koo jéppi dimbali koo xamul te am na fii ci réew mi am na ci réew mi ñoo xamante ni dañ lay dimbali te xamuñu la te boo tase woon ak ñoom ni leen yaw yaa ma dimbali woon waaye xool leen sunu waajur wu baax ba yàlla ko yàlla yërëm maam kii dem ñaata yoon la soxna soxna Ayda Dem yaa Ayda Dem mu mu mu sunu maam sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñaata yoon la ñu teral yàlla yàlla yërëm ko yal na ko yàlla yóbbu aljana wallaahi te gisuñu woon dëgg la Eva ñuy woo rek nañu am ngeen fi nangam c'est vrai c'est vrai boo xam ne boo ko yóbboo sa kër li ndooy baan wax fatt na turu ba pare mu ne soxlawu ma ku ma tudd ci télé ay waay ndeysaan ndeysaan donc ceeb boobu ngay jël wala daal wax ko ñun ay impacté lañ de eh, Aminata xam na ne ay impacté la xam na loolu yëg na ci boole yaayu Asia waaw wala ma may ko baatam Aminata yow yow wala nga ba ko yow ne la nee na day divorcé ak moom dafa Aminata divorcé moo yàgg mu toog ba léegi mu naan mu naan ma divorcé Aminata macha allah yow avant Covid la la Aminata divorcé woon sama xel dafay dem li nga wax la rek ak li ndoy baan di wax mhm. keroog rek dama am sama benn càmmiñ nee naa Eva Tra maa ci gën a càmmiñ mhm. macha allah maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ndoy baan day faral di wax ne léeg jigéen du am càmmiñ mhm. waaye am na càmmiñ yoo xam ne dañuy ah, bokk sa biir kër nekk sa ay frère macha allah daf ci am ku ci seen rek keroog jeegoo à la mu ne nit soo ko bëggee def plaisir da nga koy def plaisir ba muy dund ñaanool ko yàlla mu gudd fan. Mhm. ne am leen defalal leen ma ko gest bi parce que je l'adore. bi nga koy joxe fi la bi nga koy joxe ah, fi la fekk. très bien xam nga dama toog fii ñaata at. boo seetloo sama baat boobu am na juróomi ba pare ne ku ko tudd mu xeex ak yow. <laughs> bi bi nga koy joxe fi la ma fekk. Ah. xam nga sama baat boobu ëpp na lu ëpp juróomi at xanaa. dëgg la booba ci kaw la woon ba ci suufaat. c'est vrai ma naan leen dama bëgg koo xamante ni nii. Hmm. nañu leen defal hommage bu rëy rëy rëy. dëgg la ma ne ñaar ñu yàlla nañ fi yàgg te wér mais man dama am yéenewu ñu defal leen hommage fekk leen fi ñaar lañu ba ñett. Diego. yàlla nañ fi gën a yàgg. Papa Mansour Mbaye. yàlla nañ fi gën a yàgg. na tarixa yëpp àndandoo ak réew mi yëpp defal ko hommage boo xamante ne nii. na fi yàgg waay te wér ak Ousa Diallo. Doudou Ndiaye Rose daan naa ko wax gis nga alhamdulilah na ko moom Papa Eva ak Ousa Diallo. dañ leen rendre hommage léegi. ndeysaan ku baax moom keroog ba gis Pape Cheikh def ko. Oh, c'est vrai indi ko bisu anniversaire am mu toog wax ak Sénégalais yi lay liggéey de xamoo xale boobu. Euh, impacté wut nag benn yoon. moom Papa Cheikh impacté wut benn yoon moom a gar mi àndandoo nan daal tëgg seen marto d'or Mbagnick Diop def na corridor. gaar gaar mi tam dafa am lu ñu dégg mu neex ñu lool te lu mu mérité la macha allah. bu baax Mamadou Mbaye. Mhm. xam nga garmi dama la yàgg a wax ma ne la heureusement ki ko tuddee gar mi juumul tur wi garmi la mais jëf ji gar la. macha allah dama nekk ak moom 21 jours campagne. Hmm. ñu nekk ko maak moom musuma gis gar mi xëccoo kenn micro. ci musuma gis gar wax nit wax ju ñaaw. Hmm. musuma gis gar mi siisante ak nit. kon kooku bu ñu yëkkatee prix boobu jox ko ko tur dafa euh, xandeer bu delloo ci waaram dafa waaj baadu da nga bëgg a wax ne micro day wane jikko day wane jikko micro ndaje day wane jikko ndax ku ne da ngay bëgg gën a fees ne weenu jot a weenu jë xam nga dafa amul soutien moo tax boo ko ne daa nga day metti mais dama lay limal ñi nga xam ne impacté wuñu nag tey Pape Cheikh ak Garmi impacté wuñu benn yoon tonton Abdou Aziz mbay wàlli si na ca mbay gay fayee seen diggal xam nga. non Mbaye Gueye boo ko seenee xam ne impacté wul moom impacté wul Mbaye moom daa bàyyi ba réew mi metti nijaayu Eva Tra daa bàyyi ba réew mi metti gën koo defar tarkaal la xam nga Mbagnick Diop ñëw na def corridor. ah Diop Mbagnick Serigne Mboup def gerte door. c'est vrai sunu papa ja kii Thiam def euh, maalaw door. Mhm. Pape Cheikh ak Garmi tëgg marto door. léegi nag maa nga ca biir lu ko may ma yàq dil bi. marto door. marto door lan defar nii. kooku nag duma ci duma ci mën dara. am na keneen ku bind nee na moom mi ngi ñu nuyu c'est que li wutale sunu réew yi ak réewu tubaab yi réewu tubaab yi dina am astuut bu ñu lay jàppale moo ne fii tam ñu ngi jéem ndoy ban nan moo ci sa xalaat. xam nga su xam tubaab yi dañu organiser wu organisation ba. Mm. askan wi citoyen bu ci ne. Mm. am na sa tuut luy dugg ci gafak réew mi. waaye fii réew mi ñi seen tuut di dugg ci si gafak réew mi dañoo bariwul. dëgg maanaam ñi dañoo nekk ci informel. mais mm. tey ji su fekkoon tey ji ñëpp askan bi population bi ñëpp ñëpp kenn ku nekk maanaam na tubaab yi organisé woo ñun organisé noonu na nañu noonu noonu par exemple mm. comme comme que cette croix de mariage yow la doon wax la neex takk jabar xam nga manque de d' organisation la dëgg dem di uti extrait ñun la sa numéro jox nañ xam nga loolu manque d' organisation la mais loolu amul ci dëkk tubaab ya tey jii soo defee nekk su du noonu automatiquement ñu maanaam soo dawalee dawal boo warta dawal état bi amaan la amaan amaan yooyu yu bari bari yooyu nga xam ne tubaab dëkk tubaab dafa am keesu tubaab yi day am xaalis tey ji su demee ba yu mel ni am fa tubaab bi de mën na di di fay nit ñi maanaam di fay yi di ñi nga xam dañoo dañoo impacté di jël daal di leen ko jox mais bokkut ak dëkk yi nga xam ne demewul noonu fii dangay ngay dawalee nu la neexee. dara du la ci fekk. fii nii mais suñu dëkk yi ay jullit lañu. waaw da ngay jël ban lan moo tere ñuy génnee asaka ji niñ ko war di ko génnee. voilà c'est que li ñu lislaam wax moom leen deful. su li ñu lislaam wax suñ ko defoon tey ji tey ji covid bi réglé na ko lislaam réglé na ko kenn ku ci nekk sa asaka nga jël ko bala ngay jël sa asaka di ko gàddoo Ndakaaru di ko yóbbu ba Pire te ay néew di doole da gis ku gàddu asaka di ko jox bàyyi chauffeuram bi nga xam ne liñ koy fay doyut jànqam ba ca kër gi leen koy bi lay dawalal te nga ëppale ko waaw jànqee ci kër kër ga ñi nga xam ne ñooy liggéey sa kër yow milliardaire nga te sooy génnee sa asaka ba ko didlee Ndakaaru yóbbu ko ci feneen fa sori mm-hmm. ndox na lu romb pax na nit ñi su suñu bëggee dëkk bi corona bi jóge fi sëñ Muntaxa sa am na lu mu santaane. sëñ Bay Sa Maasuur am na lu mu santaane. ñi nga xam ne <laughs> sëñ Bay Sa Maasuur am na lu mu santaane. ñi nga xam ne yàlla may na leen wërsëg tamit. waaw nañ génn santaane dara. jarul ñuy jël xaalis naan dañ ñi ngi koy dajale fii ñi ngi ko non non non non toogal sa biir koñ sa dëkk ba nga dëkk mën nga faa def loo xam ne tey jii sénégalais kenn du namm dara. asaka soo ko génnee ci koñ bi. séddale ko ci koñ bi séddale ko ci néew di doole yi nekk ci koñ bi mm-hmm. Mm-hmm. mais koñ bi day daal di naat dëgg xam nga mais soo jëlee sa asaka bëgg koo dugal ci ay kam yu jagat jagati ko yóbbu aw aw ak moom yoonu ndar ñaata pauvre ñaata néew di doole ñu gën a sonn fuuf fa ko yóbbu ñaata yoon nga ci romb mais ngis ngistal beeg eh, yaw a yawa yawa yawa bi moom moo yàq moo yàq bi bu mm-hmm. kër bi ci boppam moo yàq dëkk bi sooy joxee cinq cent mille rek il faut caméra yi ñëw soo joxe benn 10 millions di ko jox sa sa sëriñ da ngay bëgg caméra yi ñëw ñu ne xool leen diw ma jox 10 millions sëriñam loolu ça n'a pas de sens mm. mm-hmm. la moom moom fi mu ne man ku ma fi bàyyiwut a menacé rek dinaa fi jàllale sa ma wax mais félicitations à Dieynaba <coughs> yëg ngeen na njëkkee laa ci yëg nañ loolu ah, ma ci mbir mu ndaw de. ah yow tamit ni ma ni ma nobee maam maam maam maam Fatou Ndoye. Mhm. muy sama chéri macha allah may njëkkeem. Mhm. noonu laa nekkee njëkkee jeena ba Seydou Ba. billaay ndeysaan sama sama sama waa xamoon naa ne bëgg ma bëgg faaw mu dem ba sama réew ma. <laughs> fu mu ko <laughs> ah, ma ca Côte ah, ma joxe info eh, information. information information Sénégal ak Côte football na génn dëkk bi parce que yu bari. Eh, jigéen ñi ñoo koy def suñu kii. yaa ngi bëgg a dugg ca la ma ah, mooy war la ma góor bu baax nga waxoon ne nee na yenn secret yéen a koy génne ndax dëkku leen fi. <laughs> noon noonu la jey na ba vraiment maa jey naa comme ni ma koy waxee rek. leen allah léeg-léeg nag ñu raak nan ba ku nekk tëdd sa kaw morom. mais nit ku baax la xol bee rafet taar kàlla yàlla na sëy bi barkeel. amiin amiin amiin xam mu ngi wax. mais am na ci joxe yin yoo xamante ne. Eva bañ a joxe sax a ko gën. dëgg ndax am na ñoo xam ne ñàkk ci ngor moo leen gënal am ci goree di da nga di borom barke tëju ci sa biir kër li ngay joxe lépp lépp lépp ëppul 200000 wala 500000 francs la ay néew ju doole xëy 5 heures du matin ñëw rang sa buntu kër. Mhm. xëy nag woowoo leen. mais mhm. yaakaar moo fort. Mhm. ñu xëy 5 heures du matin ñëw rang sa buntu kër nga bàyyi leen fa ba 17 heures. génn nga romb leen oto nga dugg ñu daral la buntu bi nga dem. sa jabar génn na romb leen oto la dugg ñu daral ko bunt bi mu dem say doom génn na oto la dugg ñu daral ko bunt bi mu dem nga bàyyi leen ñu taxaw ci diggante xiif googu mar googu ba ngoon jot nga soogay di leen jox li nga leen di jox ñuy dem te bu leen koy jox da ngay mel ne comme ku leen koy sànni wala sa gardien di leen ba max ak yeneen ak yeneen ndimbal bu demee ba ànd ak méttit nekkatul ndimbal beneen bi ci topp nañu xam ne ay jullit lañ ñu atte woo atteb jullit mm. te bàyyi rek jullitu koorite jullitu tabaski jullitu màggal ak gàmmu ak julliti ajjuma ñu fees jàkka yeeg jumaa yi mm-hmm. nañu génne li ñu war a génne séddale comme ni ñu ko war a séddalee li nga wax kenn ku nekk koñ ba nga dëkk xàmmee nga fa ka mën ak ka mënul xàmmee nga fa nga war a def ak fa nga warta def mm-hmm. jëndal ceeb dëwlin li nga xamante ne nii mooy li mënta ñàkk dépense ba koy mottali nit ki mën na ko débrouiller xay na boppam mais yow mi nga xam ne yaa dëkk ci koñ bi yàlla jox la nga naan nangami milliard nangami milliard te nangami milliard yow nit ñaa ngi rang sa buntu kër xiif a ngi leen di rey say mbokk nga toog du ñu ñëw ci yow ndax xam nañ sag doyo di mm. te yow tey bu ñu woote woon ci télé bi nga woote ci télé bi ne joxe naa 10 millions joxe naa 20 millions jóge Touba ñëw Dakar joxe 10 millions ci télé bi te yow Touba ga ngay dee mm. lekkuñu naanuñu mais yow joxe woo ko ngir waa joxe woo ko ngir yàlla joxe woo ko ngir sëriñ bi da ko koo joxe kay ngir ñu tudd sa tur ci télé bi mhm. ku fiy jënd tur nag ndax diisu poos bis boo jeexalee dekku yées sa maam <laughs> mangoog ndoy baar <laughs> mooy bi dama daaj quoi. waaw waaw waaw mais li mu wax yëpp da koy xam. xam nga non dëgg neexul nag xam nga dëgg moo neexul man daal li ma gën a intéressé mooy chef d' entreprise yi. dëgg la entreprise yi. Mhm. nit ñi toog seen i kër bari nañ trop. Mhm. dëgg la ngi naan télétravail def télétravail par ñu wàññi sa salaire teg ci. loolu tamit metti na trop trop trop trop état bi tamit ne jéem a xool naka lañ mën a ko retourner nag jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy employé yi nga xam ne dañ leen a dañ a dàq au bien ñu jàppale ñi nga xam ne mooy chef chef d' entreprise ba pare contrôler leen que ne leen di dimbalee def nañ ko ci entreprise pour comme ñu mën a euh, jëlaat ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñu wàññi mm-hmm. mais su fekkee dañoo toog di seetaan chef d'entreprise yi ak seen employé rek dina am fu mu méttee am na ñoo xam ne am nañu compréhension lool lool lool lool lool am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañoo tiit te mhm. xam nga yor seen nekk chef d'entreprise ba pare tiit xam nga waaw affaire yi doxatul su ma continuer di fay salaire charge yi dafa bari patati patata d'accord yàlla moo indi loo xam ni maanaam mbir mi amoo koo koy jiiñ dëgg la du sa président du sëriñ si du sa employé du ken yàlla sunu borom moo wàcce balaam ci àdduna bi donc il faut nga nangu ndogalu yàlla yow mii nga xam da ngay wàññi ay employé ndax pour korkoral xaalis mmh. su la covid bi yóbboo looy wax xam nga. ndax la ñu daj la daj bu riis rek. kenn kenn xamatul ku fi kenn xamatul kuy dem. wallaay kenn xamatul gars yi ñëpp war nañoo jaamu yàlla de. ndeysaan jaamu yàlla bu baax Covid bi. doo xamul kenn xamul ku mu fi bàyyi ku muy yóbbu de. caat sa xuloo waale dafa toog barki demb am lu mu yor gis benn affaire ne da koy jënd. ma ne ko ah waa yow caat kañ nga daan génnee nii mu ne ma ah loo xamul kañ lay jeex foo ci toll na neex. waaw damaa xam ndax weer wi di ñëw man dinaa bokk ci ñi demam oh, dee. ma ne ko ah mu ma réew wallaay yàlla na yéex wax na nag lu am solo ñun ñëpp ragal ñun ñëpp ragal wallaay nee na ñu bëggante nañ takkante fu mu ne nii waaw ñi xuloo woon nañ dem jubóole ji ko am looy maye may ko nit ki te yéene ko ko war na dimbali nit demal nga dimbali ko ndax nee na kenn xamul tay la wala suba oh. bu jamono tolloo foofu nag say baax baax nay ëpp say bon bon ma mm-hmm. yàgg fi wax ko voyage booy dem te doo yóbbu bagage amee fretal mm. bala ngay dem fret nag weesuwul jaamu yàlla ci jaamam yi mm-hmm. sunu borom la may te yow mi ngi lay jox dépense te musta añ si sa kër dépense ba des na yaa ngi toog di wetteeka dugal ci ay frigo mais yekkal ku ki dëkk ci koñ bi te nga xamante ne àdduna du yàgg bam ñaan la añ mhm. mais bu ko jox desu bool ba tibbal ko ci tàng-tàng bi yóbbul ko mhm. Mhm. am bien ñu ngi nuyu xale yi tay ba ba jëm zone A zone B wax naa ko fi keroog dama gis ñu def ay gestes yu rafet yoo xam ne distribuer ay gel ay kit ak yooyu yëg nañ ne sax ne ndey sali jóoba nekk seen gannaaw waaye yal na dool dolli jàmm rek macha allah ah waaw euh, comme comme ñoom nday sali tamit xam naa ni war nañ ko ñaax mu gën di jàppale tamit femmes yi. ndaxte mhm. jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci monde rural bi tamit. Mhm. vraiment xaw na xaw na xaw na. am na xam na metti ci ñoom. Mhm. ñeneen ñi nga xam ne dañoo leen a financé tamit financement yi. te nga xam ne dañuy dañoo war di fay weer wu dee. dañoo war di fay banque ba. état bi war na xool c'est que li ñu war a xool mooy banques yi état bi moo war a wax ak banques yi. pour que ñi nga xam ne dañoo am dañoo leboon banque di war di mm-hmm. fay mm-hmm. nangam par weer ñu xool ñu kon leen banque yi mën a bloqué affaire yi ba may leen fi ak trois téye maanaam trois mois yoo xam ne duñ leen dagg dara mm-hmm. su ko defee nit ñi mën a suqalikuwaat loolu rek loolu rek benn benn affaire la tey su ko état bi waxoon ni leen banque yi maanaam échange yi nañ ko aj fii ak 3 mois nga xam ne yow mi nga xam da ngaa leboon banque kenn du la dagg dara fii ak 3 mois pour may la nga nga nga mën a noddanti ko tuuti loolu dina am lu mu régler mais suñu fekkee ah, état bi dañoo dañoo dafa bàyyi askan yi ak banques yi léegi banques yi ah. yóbbu leen yóbbu leen ardo banque yaa ngi yóbbu ardo surtout enseignants yi ak fonctionnaires yi fonctionnaire yi ak banque yaa ngi leen di xaw a rey ndaxte ndeysaan dañuy dañuy dañuy bëgg kër bëgg bëgg jël seen i soxna ak seen njaboot teg leen ay conditions yu baax ba tax ñu dem banque leb fa Mhm. su ma utee banque demee banque la fa pare tombé Covid bi am. dafay mettiti ci ñoom. donc état bi ne leen jàppale ci pour waxtaan ak banque yi pour ñu jéem a teggi seen tànk tuuti benn 3 mois boo xam ni. Mhm. lan la daan dagg. benn cinquante mille bu daan dagg ci sa salaire chaque mois ñu bàyyi ko fii trois mois nga xam du dagg dara ku nga nga nga mën a mën a jógaat waaw suqalikuwaat loolu dina am lu trou bu mu fat mm-hmm. mais maa ngi interpréter toujours le président Macky Sall ci loolu mm-hmm. pour que wax dëgg yàlla mu taxaw ci parce que metti na ci fonctionnaire yi metti na ci ñëpp mais metti na trop nag ci fonctionnaire yi soo dee waxtaane policiers yi gendarme yi jàngalekat yi mm-hmm. jàngalekat su am xelam dalul du mën a jàngale. déedéet te jàngalekat yu bari bari dañoo am bor ci banques yi. déedéet munta ñàkk parce que ñu ci bari dañuy nekk ay jeunes takk jabar. Mhm. ciyeetal xam nga mhm. Sénégal takk jabar ak ak ñoom seen da nga il faut nga def prêt wala nga dajale. Mhm. soo ko deful du du du mën a baax nga def ko ba pare nag. Euh, dem sooy fayeeku par exemple exemple sooy fayeeku cent cinquante mille banque ba dem dagg soixante quinze mille ya looy dunde day jafe waaw ah, day metti danañ jàppale enseignants yi policiers yi euh, fonctionnaires yi daal nañ leen jàppale quoi vraiment parce que c'est doy na waar ah, am na ku ne ci ci euh, ñaana ñaana jaxate nee na nee na ay waay ndoy ban na nga wax waaye waxal ci banque yi métti na torop torop torop noonu la ko waxee ah mais dëgg la li may wax nii tey jii soo mënee sa boppit am na ñeneen ñoo xam ne noo banque sur ak commerçant yi commerçant yi commerçant yi jaayetuñu dara te ñoom ñëpp dañoo dem banque lettre pour mën a def seen commerce. ah xoolal mhm. baax ñu mel ne commerçant wu marché Touba mhm. nga xam ne bi ñu am na ci ñoo xam ne bi ñu demee Chine bi ñu dikkee. li ñu indi woon ci bagage lépp tàkk-tàkk mhm. bi yóbbaale na ko mhm. nga boole ci yow jaayoo gisoo leneen ak leneen mhm. mais ñooñu aussi buñ fàttali seen kër yi mën na ci tas ah. Ah. leneen ak leneen mën na ci am ñi nga xam ne dañ doon jëli marchandise bitim réew te dematuñ dikkatuñu c'est mi booy xool fépp la méttee parce que marchandise moom nga daan jëli ba ci ñi daan wàccee conteneur bi am na tuut suñ ci daan am sa boutique am na tuut suñ xale bi la daan jaayal boo gisatul ku jënd da koy wax ne ko dem toog seen kër fóotkat bi fóot ci biir kër gi sax impacté na ndax waa kër gi dootuñu ko wóolu pour mu ñëw fóot si bu dikkee duñ ko fay mhm. lañ ko war a fay mhm. euh, yow man mii nga bëgg sànni xeer ndigal Marie <laughs> Christiane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax adorable adorable dame sama bopp laa nee na ma awakat man man euh, kii tax fóot du ma fóot si parce que damay ragal ngeen ne damay wàlle ma ne ko ñun sax dañ lay wàll sama yaay damaa taxaw fan yëpp fóot mi fóot mi ma ne ko ku koy fóot si laa bëgg a xam <laughs> waaw bu ñu respecté gest yeeg mesures yi rek incha allah mm-hmm. war na mën a nekk am na keneen koo xam ne moom ma nga France Mélanie Diatta ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nee na lu ngeen wax ci Sénégal France a raw fu mu nekk nii. Mm, noonu la ko waxee France a raw waaye ñoom ñoo ñu tane. dëgg la ñoom ñooñu ñu tane xanaa xamu ni ñi ngi tooñ naan diw impacté wul diw impacté wul mais fii banques yi rek ñoo impacté wul ah. Mm. banques yi ñoom ñëpp ñu ngeen ay xaalis borom banques yi du nammuñu dara. ak peut-être ak assureurs yi assureurs yi impacté wuñu ndaxte ñoom ñooy ñoom dañuy encaissé xaalis <laughs> ñuy encaissé xaalis kay doo doo dara mu naqare di nga assuré ji c'est ça même su fekkee tey jii tey jii man cinq mille francs cinquante mille nga may dagg par weer ñu waxtaan sax ngay dagg cinquante pour cent yi Uh-huh. vingt cinq mille par weer ñu wàññi ko teggi seen tànk tuuti pour que ni gis nga loolu su ko état bi réussiré uh-huh. réussiré ba waxtaan ak banque yi ba banque yi mën a may nit ñi à trois mois wala ba quatre mois uh-huh. wala six mois pour nit ñi mën mën a noddati ko mën bilaahi mën naa ne réglé na presque cinquante pour cent affaire mais Ndoye Bane ne actuellement seeni këyit a nga ca wala ma nga ca huissier ñu war leen a génne loolu tam kaa bu am la faaw ngeen ngeen taxaw ci ñoom bañu ñu fay mais dañu liggéeyul fay nañu borom kër gi pendant cinq ans da ngay gis ñoo xam ne fay nañu cinq ans daan fay le cinq bu nekk seen xaalis fanaani ci borom kër gi musuñu ko yàqal wala bu dara yàqoo sax ñoom ñoo koy réparé waat mais ñooñu tey ñi ngi ci guta mhm. parce que déjà yow ku mënul fay benn weer wala ñaari weer naka ngay joxee caution mhm. avance commission de euh, roñ sa bagage yi tuxu mhm. yooyu yëpp ndoy baan war nga ci dem def ci ay gëstu ba xam nga yow yaa ni ñi doon xawma lan dañoo dajeeg ñu ñu xawma lan ñu mbëkkante noo koy wax ña gëmmentu woon waaw doxi woon ba ñibbis waaw ñoo dal ci kaw ña gëmmentu woon ñu dal ci kaw ña doon dajaxu ñu ne ràng ci kaw ña doon nelaw ñëpp àndandoo ne loolu doy xam nga loolu lu tax mooy indi loolu li tax ki loué dafa loué kër Ndoye Bane ndooy baan dafa reer xaalis banque waaw baan Bane ba muy tabax immeuble bi dafa dem banque leb fa benn cent million waaw loolu day daaj koy loué mhm. lii ngeen may fay moom laay verser ci banque. bare la ci baalee ci sax banque baalu ma. non bare daf ci bare sax daf ci bare sax. bare la ci problème man su banque baalu ma. moom bu wér. donc soo fayul. Mhm. banque damay top mhm. donc man li mu nangu sama kër. voilà léegi nag li koy réglé mooy état bi jo boppam na woo banque yi balaa conseil des ministres jeudi bii woo leen réunion ni leen teggi leen seen tànk askan waa ngi bëgg a dee. Mhm. c'est ça le su banque bi teggee tànkam rek. bailleur bi dina la mën a teggi moom tam tànkam su banque bi teggee tànkam ah ñu wax a gars yi nag ñi nga xam ni tamit dañuy topp nit ñi ne ne ah banque teggi na tànkam nag yéen itam teggi leen seen tànk tuuti. Mm. ah su ko defee euh, ñi nga xam ne dañoo def ay prêt. moo xam ci euh, ci ci ministère de la femme wala DER. wala wala wala wala wala nga yow nga am salaire bu baax. Mm-hmm. dem ca banque ba mu lebal la wala enseignant bi ci boppam fonctionnaire la fonctionnaire dañ koy lebal. Mm-hmm. fonctionnaire boo foo dugal say kayit banque ba lebal la. Mm-hmm. Euh, yow tam su fekkee da nga yor sa entreprise bu mag a mag wala nga am sa terrain jël sa bàyyi dugal ko banque. banque bi jël baay bi lebal la ay million nga tabax sa kër et tout banque bee la jox xaalis ñu bari bari dañoo yor xaalis yaakaar ni ay millions ne yëruñu dërëm xaalis bi xaalisu banque la da gis nit ku tabax immeuble bu mag ñu naan waa ji de dal na ci dalu ci xaalisu banque la ña fay dëkk moo war a tey jii su weer wi dee agence bi di la topp agence bi da la topp pour nga fay parce que moo agence bi borom kër gi da koy topp borom kër gi banque da koy topp mhm. donc soo fayul ñi nga xam ne ñooy loru ñooy bari toppante la daal xam nga looloo tax tey ji état rek moo mën a régler yenn affaires yi ko des yi ci des nag xam nga ay affaire wu kii yàlla yoo xam ne mën nañ ko di maslaa ak lijjante mais banque yi fii réglé wuñu ko mhm. nit ñi duñu duñu duñu tàggoog yuuxu parce que fonctionnaire yi dañoo bari mhm. xaw ma ñaata lañ ci réew mi mais xoolal policiers yi nin tolloo xoolal gendarme yi ni ñu toll. xoolal militaire yi ni ñu toll. Ah, xoolal jàngalekat yi ni ñu toll. ñoom ñëpp ay. personnelu santé personnelu santé bi. ñoom ñëpp ay fonctionnaire lañu. tey ji ñooñu presque mën nañu ñooñu ak ak ak moodu moodu yi ñoo yor Sénégal bi. ñooñu ak soo ñëwee ci secteur privé bi. secteur privé comme ay ay sociétés yi nga xam ne ay ay privé lañu ña liggéey tamit dañu dañuy dañuy dañuy dem banque. Mhm. les fa donc nag su état bi réglé affaire banque yi rek. dina réglé quatre dina réglé am lu mu ndaw ndaw 60 pour cent problème mu kii bi. Euh, nu mu tuddati ñi ñi impact ci Covid bi ñi ci des ci secteur informel bi lañ nekk xam nga su gaa yi jàppalante rek lu bari daa daa di day daa di. waaw léegi da ngeen a jàpp très bien ñu ngi nuyu soxna soxna daa bo nee na jërëjëf Eva Ban a raison les assurances doivent baisser les prix. Mhm. Euh, doivent baisser les assurances nous en France wax dëgg yàlla euh, loolu la loolu la assureur yi def mhm. noonu la ko waxee ah. voilà. wallaay parce que xam nga tamit lu metti metti metti faaw nga dem assuré ji donte nag jamono ji ñu toll sax am na ci ñu baree bari ñoo xam ne bu weer bi demee la 5 le 10 ñu gaare seeni oto mhm. mais boo gaaree sa oto tamit terewul mhm. da ngay demaat ci transport yeneen di di ci jéem a dugg te man foofu moom tiitaangi ba ma fa amoon laa fay am ba léegi ndax ñoom itam li Ndoye Bane wax dañu impact tellement que versement bi il faut mhm. nga versé ko ñooñu itam Ndoye Bane war nga leen a laaj ba xam ndax li ñu daan versé avant bi muy normal moom la ñuy continuer verser ba léegi. Ah, bien sûr ndax xam nga foofu bu fekkente ne versement ba dafa taxaw il faut nga bàyyi nit ñi ñu surcharge oto yi il faut nga bàyyi leen ñu dem oto yi ah, borom oto yi waaw mhm. parce que xam nga bu fekkente ne yow da nga war a arrêter 18 heures te yow da nga daan daw jox keneen mu daw mhm. siru bi wala leneen wala da nga daan daw ba 23h xam nga diggante boobu mën nga fi taalal versement mais su fekkee 18h nga war a arrêté ndax la daan versé la ñuy ba léegi non non xam naa duñ ko versé parce que xam nga loolu secteur informel bi loolu amul ci seen biir la. Mhm. waxtaan bu jubóo la ci seen biir waxtaan bu jubóo la laaj. c'est-à-dire ba man daan wàcc dama daan xëy 8h car bi wàcc 19h léegi wàccatul 19h ba 17h lay wàcc donc ce qui que la ma daan indi mënatuma koo indi. Mhm. loolu kon boog bala ngay xëy ñu lay jox caabi oto bi ci ngeen waxtaane loolu que transporteur bi wala borom oto bi ci boppam war naa am xelum xam ni la mu daan am mënutu ko am. très donc lii may wax nii. Euh, man li naan man dof bi waxate ne de j'interpelle l'état du Sénégal ay wax ngay wax de. pour que ñu wax ak banques yi Eva banques yi ñooy problème mu sénégalais yi fii kenn amu fi ñaari dërëm koo fi tabax kenn yoru fi liquidité boo xam ni da ngay ñëw tabax dóor ko mu daanu mbaa ma xam ne yaa ngi ci leneen yaa ngi ci njaayam ñax mi wala bu weex bi mhm. wala blanchiment d'argent mhm. ñëpp a nekk ci ay problème nit ñi dañ ci dañuy lijjanti nii rek di di di maanaam di dem ak a ñëw ak a saale ka waaw taaba taaba ak di si saale da ngay dem banque leb fa benn 10 millions yor say 10 mool yafe ni yaaca ne fekk mooy loolu na état bi wax ak banques yi dinaa fi indi sama waay boo wax Famara dinaa ko indi tey tey rek dañ doon jukki je vais faamara Famara Famara moo yore association ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne dañoo am ay compte banque très bien soo amee problème banque. client ñun ñii clients yi ñun ñii clients yi. Famara mooy ki ñuy jooyal rek fu mu toll. Famara dinaa ko indi fii fii ak mercredi wala jeudi mu expliquer la li Sénégalais yi. parce que xam nga xam nga li ci nekk ñun ñu ngi wax waxu banque mais bu ñu demee ku mel ni Eva jël koppar gi rek moo ko intéressé. leneen intéressé ko. kon charte yeeg clause bi yeeg contrat bi contenu bi yëpp yow. Hmm. doo ko sax mën a lire. moo tax ma ne la assureur yi. assurance yi ci dëkk bi. Mhm. ak banques yi ñoom ñoo yore xaalis bi ñoom ñoom impacté wuñu li tax ma ko. sooy dem di impacté wuñu sooy dem di def prêt. ay këyit yu bari lañ la war a jox nga liir ko attentivement. Mhm. doog a signé. c'est vrai mais su loo soo dee def prêt cinquante cinq millions. doo tala liir kayit yi lu dul cinq millions yi ñu jox la ko nga dem rek ngay def. te muy man ak sama morom da ngay rek soo bëggee liir nëbb nit ku ñuul dara bind ko. Mhm. nit ku ñuul soo ko mëggee nëbb dara danga koy bind soo ko bind bindal mbind mu baree bare boo ko nee signal ci suuf dana signal ci suuf non bu ci xaalis bokkee kay day daal di signal lii est approuvé mm. fekk liiroo ah. dara ah, ah liiroo ah. dara nga liiroo nga xëy suba nag banque bi ne la nangam nga ngay cash fekk yaa ko signé mm-hmm. c'est vrai xam nga léegi nag ginnaaw ñun ñun ñëpp a ko signé li ñu mën a dimbali mooy dëkk boo gis dafa am état état bee ñu mën a dimbali état yi moo ñoo fi bàyyi banque ñuy def lu leen neex xam nga yu ci bari su neexul état du dak état moo leen mën a woo ni leen kaay leen ngeen ñëw nañ waxtaan askan wi ñu ngi bëgg a dee. Mm. li banques yi ban rôle lañ joué ci Covid bi lu dul jënd gel teg ca buntu ba. Mm. gel dong lañ jënd teg ci bunt ba nit ñi nit ñi guju bu doy waar boo ko voilà loolu loolu dong la donc banque yi dañ seen de Facebook a ngi toj de gars yi de ku ci nekk nee na Ndoye Bane daal laal na ma tey moom laa am na ku ne dëgg dëgg Ndoye Bane tey jii laa la bëgg am na ku ne tey jii la bëgg nekkoon nag merci pour les autres jours Ndoye Bane su juddoo woon Côte d'Ivoire gars ko jëli nga ma su ma juddoo woon Côte d'Ivoire gars yi dinañ ma jëli ma national dañ lay <laughs> kii daal nee na Ndoye Bane dëgg dëgg tey la Rasulullaay Covid bi xolal. ah Abi Diop nee na tonton Doba je suis yi mooy laxas loxo yi. Ah. takk masque moytu dajaloo yi te banques yi banques yi teggi seen tànk ci askan wi. banques yi nii lañ nekk di def askan wi. naka nappaaje comme sooy sooy rey cigarette fay ah. cigarette. di ko ah. nappaaje loolu la banques yi nekk di def. d' accord daan nañ nañ ko def mais moment bi moment bi dafa dul moment bu nappaaje. te fi nag arbitre bi mooy état bi. Mm-hmm. arbitre nag warut a toog. Euh, ah nga eh, eh, ñun ñooy. mbër penalty am ñu toog di xaar banque yi suñuy adversaire lañu. ñun état bi ñun ñooy mbërëm askan wi mooy ñooy mbërëm. mais nag état bi waru toog seetaan mbërëm mi ñu koy dóor ba muy naaj. Mm. na ko génn saako yi. carte appui moom boo ci eggee waratuñu autorisé nga. Adama Jaxate fee feelu na Evatra nee na wallaay Evatra du ñu am jotu liir charte ya nekk ñun nañu jot. koppar gi rek c' est la même chose que que que que assureur yi. Euh. tey ji ku ci amoon tey ji assurance vie wala assurance nangam. Covid bi tey ji wool sa client yi leen maa leen jàppale lii nangam dëkk bi métti est-ce que parfois defe naa léeg-léeg booy cotiser sax mën nga dem ba ci digg bi laajaat li nga cotiser woon soo soo moytul nag am na ñoo xam soo laajee bala nga jot Covid bi jeex ci procédure xaaral ma laaj doy baan bi maanaam procédure Sénégal soo dee divers sax soo demal banque par exemple wala nga dem ci benn waat assurance nga ñëw di indil leen xaalis dan lay ubbil bunt yi nga indi xaalis bi mais bis boo jëwee boo doo fa waree jëlee xaalis da ngay coono tey ji banque am na nu muy def ay étant donné tey ji su ma yore ima ma waroon a verser cinquante millions ci benn banque wala ci benn assurance mais waaye même balaa trente minutes balaa dix minutes ma verser ko mais su ma waree retirer cinquante millions ci benn assurance wala ci benn banque soo moytu naa toog une semaine du ma jot cinquante million yi pour lan loolu lu yooyu yoo fi war a dañ lay daggloo ticket te yor soo cinquante yore cinquante millions doo dagg ticket. pour la yóbbu la ca kii ba. ah y a yoo xam ne dañuy arnaquer population bi ah y a des assureurs yoo xam ne dañuy arnaquer population ce qui n'est pas normal état au Sénégal warul toog di seetaan loolu. Mhm. Covid bi dafa laal ñëpp. am na ay commerçants yoo xam c'est des c'est des opérateurs open économique euh, jiw yi ñuy wër di ko joxe dañuy dem banque lépp xaalis. Mhm. jënd jiw ñëw taxaw fi mu nii banque yaa ngi leen topp. fi mu nii pas boo fi gis wala homme d'affaires boo fi gis muy dox di wax di waxtu banque yee ko topp sonal ko su moytuwul ci kaso bi la jëm wala mu ñu nangu këram c'est ça problème soo amee tey ji R plus 4 ña fa nekk am problème mu fay fayuñu la soo toogee lu yàgg yàgg yàgg fayoo banque bi moom xamul ndax ñi fay na lam fayul de dëgg la le 5 nga war a versé le soo versé wul. xam nga xam nga foofu ngay taxaw moo tax ñun yàgg nañu mami. Mhm. li ngeen wax la rek location bi dafa cher ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi dañu ëpp seen loxo. Mhm. mais itam dañuy reconnaître ne bailleurs yi dañu jël ay engagement au auprès des banques. c'est ça ba nga xam ne ñoom itam fii lañ leen xoj. pour que uh-huh. euh, ñuy teel di leen fay pour que ñu mën a honorer ñoom itam banque yi c'est vrai. boo tax bailleur war di respecter. dëgg ki mu mamim Diop mi mu luwee këram. ndeysaan ndax su ko may mami fayul kaso la jëm. su ko mayu mami fayul day nangu ñàkk këram gi mbaa ko mami ah. fayul du lekk. ba ma waxee ba ma waxee Eva damaa waxoon doomi ñëw ka ma luyee ma ne ay doomam doom yi dañuy dàq ci escalier yi fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom ma leen tabax ah déedéet déedéet defal ndànk defal ndànk nag mm. foofu da nga fay taxaw waaw doom yaay dàq ci escalier bi ne fii moo ko moom daf maa déranger du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg saaga yeeg kubéeru kubéeru cin yi <laughs> dóor kudd yi diri gaz doom yi di dàq ci ñoo ko fii ñoo ko moom man leen tabax kër di luyee du ndam Eh, man mi jóge bawal di fay seen baay mu mën a yor seen yaay bay fay banque ba man mi maa am ndam. yaa wax lii de. waaw <laughs> waaw loo loo bëgg a wax foofu dafa am ñoo xam ne buñ lay loué dafa mel ni ñoom. Euh, beneen yëf la wax man mi waaw buñ lay loué yow day mel ne. yow da nga nekk nga war a nekk seen jaam. c'est vrai wala yow dañ la fat seen biir kër. wala yow danga nekk benn incapable wala. mais man héberger woo ma. Mm. abaloo ma da nga maa luye te yow li ma lay fay day delluwaat ci sa biir njaboot. même sa njaboot bu ñu dëkkee ci kaw tiim ma ma dëkk ci suuf nañu xam ne man maa ngi participer ci seen yor pour mu neex. Mm. donc yow da nga ma war a respecter donte man dama la war a respecter mais da nga ma luye bàyyi say doom ñuy dàqa ci sama kaw fii maa ko moom fii maa ko moom te yow bu la première sa papa ne ma yunnu ne ma boo gaawul kër ga dara du dox. su ma fekkee ma yor dara ma euh, jébbal ko ko mu ñëw bu sa papa bëggee dem ca seet ba jàdd seet ma pour mën a yóbbaale dara. loolu yëpp am na ci fay sama kaw fii maa moom fii maa moom. ah, ah waaye ah, dama laa bëgg. lu suur ba jant ba mu des xaal ah. dégg nga. dégg nga Eva. ah Estelle de Estelle de Seynabou Diagne ca Ndar ma nga lay nuyu mami Linguère nee na moom daal mami Linguère la bëgg waa Estelle Estelle Kanfoudi lu mu wax moom. waa Ndoye Bane ay ca ay ca ma ma xool lu Estelle wax. en tout li ma lay wax nii looloo mooy li nga xam ne moom moo di solution bi le temps que suba ginaaw suba ginnaaw suba yeneen invité yi ñëw. mooy état wu Sénégal fi mu nii ni muy lijjantee mbas mi naan les gestes barrières geste barrière bi gën a bi gën a am solo masque ci la de. Mhm. raxasu ci la de moytu dajale yooyu télé de mais wax ak banque ci la bokk. banque yi yu ci ëpp banque yi nekk Sénégal lu ci bëkk bëkk yu ci ëpp. Mm. duñu ay moom duñu ay sénégalais. Mm. ñu ci ëpp duñu ay sénégalais kon boog waruñu nangu. yenn banques yi nekk ay banques yoo xam ne ñi leen moom seen bitim réew la jóge après mhm. ñu toog ci nekk fii ci dëkk bi di noot nit ñi mhm. d'accord ku leb da war a fay mhm. mais situation situation bi man de dégguma lu banque Sénégal yi def ci Covid bi. ñëpp yëngu nañu. entreprise yëpp yëngu nañu. mais association des banque du Sénégal xaw ma lan lañ def. li ñu def soxlawuñu ay milliards yu mu jox état bi li ñu soxla mooy ñu teggi seen tànk ci affaire ku ku ko dégg na yaakaar ni ndoy baa ndaam bor man ameloo ma bor benn banque. man yoruma yoruma ba yoruma yoreluma kenn xaalis. ma ngoog waaw Estelle Estelle maa ngi doon ne faaw ma liir li mu wax nee na nañu dimbali moom daal comprendrewul Sénégalais yi ndax moom daal tiit na lool ci Covid bi ngir yàlla yéen média yi yéen tamit sarax lin ñu ngeen wax nit ñi ne euh, Covid bi mi ngi fii te dafay rey nit banque yi moom n'en parlons pas waxaguma seen wax noonu laa ko mën a liiree daal xam nañ ni Covid bi day rey xam nañ ko ñoo xam nañ ko on a tous peur voilà xam nañ ni Covid bi day rey nee nit Covid bi dafay fekk am nag ñu bi dafay fekk ñuy dund dunde noo xam ne baaxul woon mm-hmm. dund googu ñu doon dund nag pour ñu soppeeku ko pour pour dund pour dund beneen dund day met ni ñaa ngi changé wu ndànk-ndànk mm-hmm. mais loo moytul ñu bari dineen deete covid bi du leen ray ah. subhanallah banque ye leen di rey wa tey de ñoom waaw waaw dëgg la banque yi da leen dina leen rey ñu ci bari dinañ dee ndax bor bor maanaam maanaam tiitaange imagine tey jii mënoo fayal sa nga def arrêt cardiaque mënoo mënoo ci sa kër gu ñu war a nangu soo dee soo soo dee góor am jom lool dëgg la am jom lool Mm. ba mel ne man am jom bëgg njaboot. nga xam ne sa waa kër dañ lay xam nga sa yaay sa papa sa jabar say doom amoo kër nga luwe weer wi dee amoo loo fayee. très bien école tëj amuloo fayaloo. Facebook bi de xumb na école ubbi amuloo fayalee say doom. waaw maanaam la nga mënoon la nga mënoon la nga daan def 100 pour cent léegi trente pour cent sax mënoo ko. xale yi seen jàng commencé yàqu sa jabar ëmb amoo sax garab goo ko jox pour mu dem hôpital mm. xam nga mm. ndax feebar bi la kenn tegul ko mais feebar bi moo ñëw am yu bari bari yu mu tëj foo daan amee lu bare bari mu tëj ko nga amoon banque ca kii numéro bor ca banque ba mm-hmm. soo daan fayee ko cent cinquante mille banque bi di jël soixante quinze mille yi am na ci banque yoo xam ne li ñuy li ñuy li ñuy dagg gaa yi du yoon mm-hmm. parce que am na ci benn pourcentage boo xam ne moom nga war a dagg te soo demee di ko kaas ña ca ca bureau ba de maanaam ki yor gestionnaire compte xam na ni lii du yoon mais munu ci dara comprends nga léegi nga koy topp. mu la nga mën parce que xam nga banque tam dafa am rek lu mu war a laal ci salaire. am na lu mu laal mënu mais ci kaw nga xam say droit. waaw loo xam ne mënu ko su fekkee mais dëkk bi ñi jàng nañoo bari. ñi ci hmm. xam seen droit bariwuñu banque yi nekk fi di muucu deretu nit ñi ñëpp tëj seen gémmiñ noppi pour lan état bi tëj ci génne ma mm-hmm. loolu mooy waa ministère des finance war nañu taxaw ah, fa la ñoom fa lañ sukkandiku ministère de Abdoulaye Daouda Diallo war naa taxaw woo même su leen président woowul Abdoulaye Daouda Diallo woo les les mm-hmm. banques réunion ni leen nangam ak nangam parce que ndooy ndooy yaa ngi wax yaa ngi wax ah. am na mami ma jox la am na uh-huh. keneen ku ne agence de voyage yi tëj nañu ani ña fa doon liggéeyee ah, léegi ah ñooñu tam ay ñu ngi nañu tey ji mën ngaa toog fa nga toog jaay nit billet ba tey wala bu la neexee nga jënd ko ci ci ci internet bi yaa ngi yaa ngi wax lu daw kon léegi boutique gu mbagg sax mën naa xew da ngay toog sa kër di liggéey ah ñëpp a ngi ci vente en bi très bien wax lu daw yaram Eva dugal ci lu gën a ci dawati yaram cey waay mooy gor si nga xamante ne hmm. ba mu juddoog léegi 30 ans muy faj ay buumi gàcca vingt ans mu yor njabootam kenn mësu ko xamal dara li muy dundee ump na sax jabaram ji mu yor ci biir kër gi ndeysaan muy dem di ñëw di daan doole mën na nekk aussi jigéen joo xamante ne borom këram faatu na mu jëloon pré daan ci liggéey wala dara yor njabootam nekk ci suturaam nekk ci teraangaam mm. ñu xëy suba some ko ne ko kër gii nga yor boo moytuwulee dinañ ko nangu mm. mu wóor ko ne kër googu mooy benn teraangaam mu war ko ñàkk banque war ko topp mm. mu war a xalaat yéeg ak waaj li nga wax kooku mën a tëdd def arrêt cardiaque ci biir këram dëgg day dale ndax am na góor ñoo xamante ne deewuñu dañoo daw boo demoon bàq ya mbaa nga dem fii ci nemm leen gii ci yoon fëgg bàmmeel ya am na ci bàmmeel yoo xam ne deewuñu dañoo daw rawale ji seen bakkan ndax gàcce ak àdduna la ñu xajoowul ki leen nar a teg gàcce gi nag da leen di jaral ñoom ñu abandonné lépp far dem am na ci ñoo xamante ne ñu nga tëdd ca seen biir néeg ya wallahi seen rankoo ñu ngi daanu ci seen dënn ndax bu ñu moytuwulee mm. lii ñuy wax ni dinañ ci egg mooy kër gi ñu yorakus néew mm. dinañ ko nangu te borom kër goo gis mu xëy di kër kër yi ngoon jot mm. Mm. muy bu ndaw bi ak bu mag bi xuloog maçon rek a ko tax di daw. sama sama xel mam mi dafay dem ci euh, jigéen ñi nga xam ne ci wàllu microfinance tam lañ doon yëngu rek. Mm. dem jël lépp ay def ay prêt ndaw nga xam ne jamono bii. dëgg dëgg mënuñu ko fay. mënuñu ci dara mais amuñu luñ ko mais mais mais bor ba c'est que kenn waxul ñu leen ko. déedéet déedéet déedéet. buñ dee baal anarchie anarchie am. c'est ça mm-hmm. kenn waxul ñu baal leen ko. Mm-hmm. mais tey jii baal voilà parce que banque moom xaalisu jàmbur lay jël jox la lebal la ko. dëgg la xaalisu jàmbur lay jël lebal la ko xaalisu jàmbur la la la jox. mais tamit moo tax mu lay taxaw. mais tam ginnaaw nag xaalisu jàmbur yi bare bare la yor wax dëgg yàlla war na mën a def organisation ma daal banque ban njariñ la banque Séné banque yi amal Sénégal laa xamul. Mm-hmm. xawma ko lu dul di la dagg dagg. enseignant foog enseignant yi nag laa ci gën a yërëm. te gis nga. Mm. billaahi walaay dañoo nekk ci réew moo xam ni suñ dee fowee enseignant boo soo ko dee fowee yaa ngi fowee sa avenir doom enseignant bu ci bawul lu doy këram. su ñëwee jàkkaarloog yow élèves du leen jàngal luñ xam. Mhm. te enseignants yu bari bari dañoo ami bor gendarme yi ami bor policiers yi ami bor. sapeur pompier ami bor fonctionnaire yi ami bor ñi personnel de santé yi ami bor gars yi ku ci jëm mission soo ñëwee bor nga koy da ay bor ku ci retraité nga yërëm man la prime yii nga xam ne moom la ñuy fay enseignant yi suñu leen ko fayee ay bor lañ koy fayee te lépp banque yi ay yoo xam ne jéggiwul du ñu kan moo fi am da ngeen gis banque banque borom banque bu sant Ndiaye wala Diop wala ku ñu ab sénégalais la moom moom banque sant bariwuñu de banque yi nga xam ne fala la yi dem dafa ay bor yëpp ay banque yi ñi ko moom bitim réew leen nekk état bi toog di seetaan lool loolu pour pour lan ah ñi ngi xeex covid la la ca war ña ngi koy def mais nañ def seen conseil des ministres bii di ñëw wala ba ca topp wala ba ca toppaat nañ ko waxtaane ni banques yi neen teg seen tànk ñi bind leen ay këyit très bien Adja Adja maam tuuti nee na daal ah. Ndoye Bane cent ans sans euh, ordonnance. couvre-feu ci compte yi sans ordonnance voilà. couvre fa ci biir compte yi xumbalal ma tëjee ko. couvre-feu ci banque yi couvre-feu. waaw maanaam ñu wàññi la li banque yi doxee ñu wàññi. très bien couvre-feu jeex na. nit ñi mën a nekk jàmm moom nga tëjee ci loolu moo mën a régler problème bi de. waaw yi di faj waa kër docteur di def la ñu war a def état bi teg. wax banques yi teggi leen seen tànk. askan wi mën a noyyi. incha allah oh. musiciens yi sax dañoo am ay bor ci banques yi. ma ngoog waaw waaw. boobu ay guitare la ñuy lebal yëpp am na dañ fi nar a woo sax titi moom itam dafa bokk ah, ci. ñu artistes yi dañuy ah, dañoo am ay bor Papa Diouf. waaw da ngay gis ku war a génne benn cassette dem def prêt. Wally Seck moom ndax impacté na. ah mais Wally mi mi ngi dimbali ñi impacté. macha allah xale bu bëgg bu bëgg social man dama bëgg ndax dafa bëgg dimbali ay nit honnêtement gis nañu ba taay yi ay yëf yoo xam ne moom moo ko def ñu koy ñaanal mook ay njoñam hmm. yàlla lafal leen cat hmm. sàmmal ñu leen bu baax a baax léeg-léeg coow am mais coow yi sax day defar nit mënta dund te amoo tuuti ñu lay wisal macha allah hmm. yal na yàlla defal suñu artistes yi jàmm parce que bu ñu dee wax nag ñu impacte man sama xel ci ñoom lay njëkk dem parce que bëggal nañ ñu ba tàyyi bi ngoone nduur génnee li mu wax dafa daw yaram mu yaru mi bi ngoone li mu wax dafa daw yaram Ndoye Bane wax ñoom aussi dañu yore ay bor c'est vrai dañu war a fay location dëgg la am na ci ñoo xam ne dañu leboon bor pour pour investir ci benn affaire bu ñu waroon tëgg c'est vrai mel ne Pape Diouf mhm. léegi am na lu mu fi doon organisé day Diouf bu sëñ Fallou dafee waajaloon fayoon fi saal dugaloon ay yeneen i xaalis mais xaalis yooyu day dem yeneen yi nga jotoon dépensé mais ñu ngi fàtte ñu ngi fàtte waa làmb ji aussi. kenn du leen impacté ñoo nee nañ leen lii jukki la rek mami tey. incha allah ku ci nekk di nga ñëw wax ci yow sama sama góor maa ngi la rek. ah ñooñu ñooñu am doléance la bu ñu yekkal président. très bien impacté ñu tàggoo waaw mais tey jii. Hmm. man man ancien militaire laa. d'accord. soo dee dugg ci armée wala police wala gendarmerie. waaw dañ naan su fekkee dangaa ngaa bëgg xaalis. bu fi amul xaalis donc seen salaire demewul noonu. wallaay ndeysaan li may xam naa ko baax kat yi. bëgg-bëgg da ngay am amuuru jàngale. mais salaire oo jàngalekat demewul demewul demewul <laughs> noonu. donc nag salaire yooyu di fonctionnaire su su banque ba bëggee bëggee topp di ci dagg quatre vingt cinq cinquante pour cent wala di ci kuy fayee deux cent mille nga dagg cent mille franc ya kooku lu muy dundee ak njaboot njabootam. Ah. état Sénégal na bàyyi seetaan bi te régler lii. ci xeexum Covid bi la bokk. su ko réglé Covid bi du fi jógee de. du fi jóge jërëjëf Ndoye Bane merci kontaan nañu lool ci yow toj nga Facebook ñëpp nee ñu wiiw Ndoye Bane. dëgg rek très mami ah. mami wallaay ndeysaan moom daal li ma li ma waxoon bi may tàmbali rek laay waxaat Eva. ci luy bax la daal amul ruq bu sedd mbir mi daal metti na ci fépp la mettee xëy na li nga wax rek jukki la mhm. ñu jukkee noonu nii mais booy xool même borom salon yi dañu impacté atelier couture yi dañu impacté parce que bu fekkente ne nii ka xool ma bàyyi ñu waay Euh, pourtant dama la doon def. Ah. loolu ma Marème Ndiaye ah dëgg dëgg dama leen doon defal Marème Ndiaye maay coach. wuy ma. Marème Ndiaye bës de laaj maay coach. dama leen doon may bës noonu. demal demal may ñu bës. Euh, xam nga yéen ñi nga xamante ne ndaxte xoolal tamit ñu ngi wax mais bu ñu arrêté xew yi ñi daan ñaw dootuñu ñaw ki daan jaay tisi dootul jaay tisi. ki daan yenu siwam di jaay wëñ di dem ci buntu place yi di jaay wëñ di jaay fermeture dootul jaay kon mbir mi fépp la méttee mais li ndoy baan rek nañu ñu dimbali ngir wi laay war a sóoli man sama fukki junni yee ma am ca banque ba xam nga ne bu ngeen daggee 30 mille yi 20 mille francs yob jeeg bu toll ne man tarkaal la tarkaal euh, di jaale waat nag suñu baay boobu booy bambara comme ni ngeen ko waxee da ngeen a làmb ji sama xel dem ci moom euh, prince euh, promoteur yow itam maa ngi sa woo téléphone yéen tamit day jékki-jékki woo la téléphone bett la dugal la mu tudd fàllu bu waali mi ngi ci tiktok bi daf ma woone ma sa damaa takk ñaareel bëggoon nga envoyé ma audio sama aawa waxal ma ko ne ma dama koo fase ma ne ko yow bi Ndiaye est-ce que am nga xel yow est-ce que tin nga fàllu yàlla na sa njàmm yàgg muy ci TikTok bi lu am farata lu am solo taar mi ngi ci 78 173 61 71 78 173 61 woo leen ko sunu taar mu defal leen yu baax ki jaar ci yére bi di màgget di xale bu ndaw am jom ubbi atelier am toog di ñaw moom itam mi ngi ci la 09 09 77 222 09 09 di ziyaaraat ñëpp di delloowaat ñëpp uh, njukkal di leen wax ne lu nu fi waxtaanee rek bëgg mu baax la ba suba ak jàmm. Mangok Sénégal ñun dañoo bare sag ba bëgg a dee ndeysaan ñu ngi gërëm jigéen ñi nga xam ne ñoom itam ñu ngi góor góorlu mhm. seen biir kër yi doon tey jamono demeetul noonu di remercier bu baax a baax ñi ñuy gunge aussi pour ñu mun a embellir sunu plateau wax dëgg yàlla Kani fal li may wax rek jamais sans les foulards de Kani ma nga nekk

547 24 26 547 24 26 bu loolu weesoo nag Eva Tra xam ngeen ko bijouterie rotonde la taamu saa su ne ngir bëggal leen yéen jigéen ñi daw leen gaaw dem xool li nga xam ne moom la ñuy def Ndeye Ami Coiffure merci à toi 77 648 56 merci pour les jolis rajouts Mia Ndour yow ak euh, sa équipe yëpp ñu ngi leen di remercier ci régie ba macha allah tey jukki la woon Mariam Ndiaye coach. my coach my coach nuyu bu baax a baax tey jukki la woon rek boo xam ne dañu ñëwoon pour indil leen ko bu ko defee ngeen xam li ñuy waxtaanee ci semaine bi dem naa ba biir Qatar dem foo ni sama yaay ajaratu Tinado Daaf yaayu Awa Ñang macha allah kon Adja Tinado madame Ñang ñu ngi koy nuyu ak suñu papa Buubu Ñang du ma fàtte itam ajaratu Fatou Bensouda di ko waxaat joyeux anniversaire keneen ku ñuy jaale Mia nga baal ma muy xalifa Babacar Diagne sunu xarit la ma nga nekk ca Kaytano dafa ñàkk yaayam di soxna soxna Daba Seen soxna Daba Seen mu sunu papa Gan Seen ñu ngi euh, jaale njabootu Gan Seen njabootu Xalil Seen yëpp macha allah di ñaanal Adja Roqaya Seen Daba Seen yal na ko yàlla yóbbu ca aljana yi gën a kawe ak képp koo xam ne rek da nga ñàkk ku gën ci yow yal na yàlla yóbbu ko aljana ba suba incha allahu taala ak cofeel bu dul jeex.